ñu ngi siyaara tey nuyu mbokki réew mi yëpp di nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibey murid yëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi nga xamante ne nii moo toog toogaayu Serigne Touba di ko ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak wér ba yéene yim am ci liggéeyal lislaam liggéeyal ko yoon wi suñu borom may ko tal ak fekkee ba mottali ko ci sagoom ànd ko mboolem kilifa yi diine yi nga xamante ne ni ñu ngi ci biir réew mi yilif ay tariixa yilif ay njaboot ñoom ñëpp yàlla neen suñu borom may tal ak fekke ba yéene yi ñu am ñu mottali ko di beral nuyoo boppam tamit sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ saaliw mi nga xamante ne nii moo toogee jataayab sëriñ Saliou Mbacke te mat ko sëkk moom tamit di ko ñaanal suñu borom may ko fan gudd wu ànd ak wér gi yaram yéen yim am ci liggéeyal sëriñ bi suñu borom may ko sago may ko tal ba mottali ko ci ni mu ko bëggee te ñu ànd kook moom dagg ca ngërëmul sëriñ bi dellusi si tey jii nag li waral waxtaan wi mooy fàttaliku jàmbaar ju tedd kilifa gu baax te lawet fàttaliku wayjur fàttaliku sëriñ waaye ñu bari ci ñun tamit mën nañ ne fàttaliku maam ndax taxawaay bu nekk ci yooyu ma lim taxaw na ko ci njaboot gi ñu daje fii tey ci suñu kër mbokkum taalibe muy sëriñ Moustapha Diop nekkoon ci daara yi sëriñ Saliou Mbacké nekkoon ci jàng alxuraan tarbiyewu ba wàcc tey ak ay kilifa yu tedd ngir waxtaanee jëmm ngi tedd jooju fàttaliku ko ci bis bi nga xamante ne nii ñenn ñi ñi dëkk ci réew mi dañoo taamu bis boobu ngir di ko fàttaliku muy le 28 décembre ci weeru tubaab waxtaan wi nag ay kilifa yu tedd teew fi ay kilifa yu baax ñëpp tamit doon njabootu Serigne Saliou Mbacké ay kilifa yu tedd tamit ñu xam Serigne Saliou yàgg ak moom yàgg koo bëccëgal yàgg koo guddil yàgg koo liggéeyal ci liggéey bi nga xamante ne nii moom liggéeyal Serigne Touba ñu doon ko ci gunge ñoom ñoo ñu ko fa yéenee defal. sëriñ Makhtar Kébé mi nga xamante ne nii mooy def waxtaan wi ab jàngalekat la. ab yarkat la waaye jàngalekat gi mu doon lam xam ba koy jàngale ci sëriñ Saliou Mbacké la ko jànge fa la ko xame yarkat bi mu doon tamit yar bi nga xamante ne ni mi ngi koy def ci ñi muy jàngal ay jikko yu sell ak ay jikko yu baax fa mu ko jële tamit mooy sëriñ Saliou Mbacké kon bu teewee di waxtaanal ci sëriñ Saliou dina yay te dina yell te jàpp nañ ne dinañ ci jël ay njariñ yoo xamante ne nii danay amal njariñ taalibe yi amal njariñ réew mi sëriñ Habibou Diop nga xamante ne nii kenn ku nekk xam na ko ci sëriñ Saliou yoram daaray got muy daara ju yàgg ci sëriñ bi liggéeyal fa sëriñ bi liggéey boo xamante ne nii liggéey bu sëriñ bi gërëm la ba sëriñ bi gërëm ko indi ko Touba ne ko la man liggéeyal ca got laa bëgg nga jege si fii di ma ko liggéeyal ci sama daara ji di ma jiiteel sama jumaa ji loolu nag li ma ko jublu mooy di ko barkeeloo ca sa way jur tedd wa Cheikh Mahamadou Amine Diop Dagana nekkan gi mu nekkan ci wetu sëriñ Touba di ko liggéeyal loolu laa bëgg fas yéene barkeeloo kii ngay wéyal liggéey boobu moom tamit bu sëñ Maxtaar waxtaanee moom dana ci jël jàngat waxtaanu sëñ maxtaar bi xam naa ne moom tamit njàngat moom ciy def dana doon loo xam ne dana jëriñ waa réew mi dina jëriñ tamit taalibe yi ay kilifa yu tet tamit teewe ko sëriñ Koso Mbakke nga xamante ne nii moom tamit ci daara sëriñ Saliou la nekk sëriñ Saliou yar ko mu yàgg ak moom ginnaaw bi tamit ba mu jógee ki daara gi tamit ci kër sëriñ bi nekkoon ko jaxasoog sëriñ bi moom teew na ci jataay bi sëriñ Saliou Mbakke moom sëñ Mbakke soxna loo kenn ku ne xam na moom tamit ni mu demee ci kër sëriñ Saaliwu moom tamit teewee na jotaay mhm. sëriñ Xamsatu Silla ku yàgg ak sëriñ bi yoroon daaray bi jànnatul mahwa mhm. yoraloon tamit ay liggéey yu bari mhm. dooroon ko jaxasoog sëriñ bi tamit di doom yi bàyyi sëriñ Silla di setu sëriñ cumbuleen moom tamit teew na ci jataay bi mu ngi den nag sëriñ Omar géey sëriñ Omar géey nag ñu naan ko minicar lañ gën a xam moom tamit nekkoon ci loxoy sëriñ Saliou ñëpp xam ko ci kër Serigne Saliou ba turu Omar sax ñu bari xamuñ ko turu bi nga Serigne Saliou tudde woon muy minicar ak turu woowu moo barkeel ba turu woowu la ñëpp xam moom tamit mi ngi ci gataay bi sëriñ Abdou Salaam Lo di sët bu sëñ Maxtaar Bintaloo moom tamit mu ngi ci gataay bi sëñ Maxtaar Bintaloo ak Serigne Touba kenn ku ne xam na seen diggante sëñ ab njaay di jëwriñ ci dongay tarbiya yi di am liggéey bu am solo bi mu yore ci wàllu tool yi ak wàllu taxawaay yi te sëñ Cheikhoum sëñ Saliou dénk ko ko moom tamit ñëw na ci jataay bi moom tamit teew na kon boog ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp ci seen teewaay yu rafet yooyu di sëriñ Mbacke Diop moom tamit di doomi sëñ Mourtala Diop di sëtub sëñ Matar Diop Ndumbe moom tamit mook sëñ Moustapha ñu bokk benn waajur moom tamit teew na ki jotaay bi kon boog yaakaar naa ne sëñ Makhtar mën nañ laa jox kàddu gi di la siyaara di bi fas yéene tamit teewlu déglu la taataan ci yow loo xamante ni danañu mën a jariñ ci suñu jàmbaar jooju incha kon sëñ Makhtar ci liñ bëgg xam daal ci mm. thème bu njëkk bi waxtaanu njëkk bi mm. sëñ Saliou Mbacké xam gi nga xamante ne nii waa réew mi war nañ koo xam kan la ngir ñu jariñu ci moom mm. njariñ loo xamante ne nii dina jariñ réew mi yëpp aoudu billahi min ashaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim maa ngi jël sama nuyoo di ko teg ci sab nuyoo ni nga ko waxee rek noonu la su ko defee ñu jëkkanteeg waxtu wi ci waxtaane jàmbaar jàmbaar nag ku ko def yaa def la tax ñu tudde la jàmbaar mais ab liir pour nga tudde ko jàmbaar du yomb sëppeen pour nga tudde ko jàmbaar du yomb jàmbaar ginnaaw jëf la su ko defee bu ñu nee jàmbaar ja rek nañ xam ne waxuñu juddu ba waxuñu askan wa jëf jaa tax muy Cheikh salifu Mbakke radiyallahu anhu waa réew mi war koo xam nag bu ko waa réew mi waree xam nañ xam ab yarkat ndax nañ xam ne li gën a tedd ci métier yi mooy métieram yar ci yar la yàlla suñu borom yebale yonent yëpp pour ñu nekk ay jàngalekat nekk ay yarekat moom la arab tuddee ashraful mihan mbole métier yi métier mi ci gën a tedd mooy mécc mi ci ëpp njariñ te bu njariñ la ñëwee matale bañ a bàyyi kenn loolu mooy al murabbi mu murabbi moomu nag métier mooy at tarbiya mooy yare danañ ñëw ci tomb par tomb ci taarif lugawi bi ak istilaahaat yi nga xam ne boroom xam-xam yi indi nañ ko ci Cheikh Saalihu Mbàkke moomu nag di doomi Sëriñ Tuubaa nga xam ne ghaniyun ani taarif Sëriñ tubaab moom boo ko waxee nopp yëpp daañu xam ne mosuñoo dégg boobu baat soo génnee woon photom bi di ko wane it nit ku mel noonu amul donte ab malien nga wala ngay ab burkinabé it buñ la wanee photo yëpp da nga ci d'accord mais buñ la nee photo Sëriñ Tuubaa yi da nga ne lii moom c'est exceptionnel maanaam tey laa ko mas a gis kon kooku mooy baayam way juróom it ñu tànnal ko ko ci diggante tànneefi way tànneef muy soxna maam Faati Jaxate ma tënk ci moom itam tuuti kër ga mu jóge dëkk ba mu jógee dañoo fekkoon baax alxuraan ak xam ak yar biñ ko indee ci sëriñ beet mu ëndaale alxuraan ak xam-xam ak yar moom soxna maam Faati Jaxate defe naa bokk na ci euh, waa dalilin preuve bi ci gën a wér mooy sëriñ bi daf ko mujjoon génnee kër gu mag beral ko kërug boppam ne ko li ngay jànkoonteel ci diggante xamle ak yar sa kërug bopp lay doy moo waral boo duggee njaareem jóge Touba këram da lay féete góos kër gu mag loolaat da koo jëfe ndax mbooleem soxna yi jaaroon ci moom di way juru sëñ Moustapha Saalihu di keneen daana jàngale masaalik ak mbooleem téere yi boole ca it daan jàngale alquran mubasharatan direct daf caa boole woon ne nee na su yaree nit ba noppi ci moom mooy soo yoree as soxna ba noppi ci moom soxna soosu buñ ko nattoo woon kuy lekk laaxu daqaar di xëy tool di naanum déegit dana fa mën a ne kooku ci ngeen di dégg ne nit ki bu xasee ba yaru barab bu nekk bu nekk dana fa mën a nekk kon ñëw nañ ci Serigne Touba mooy kan ak soxna maam Faati Jaxate mooy kan Cheikh Saalihu Mbàkke moomu nag amoon ay xusuusiyaat yu bari ci sëriñ Touba ay jagle bokk na ca taqoog sëriñ bi ci ak ndawam taqoog sëriñ bi it bi mu xàmmee loolu istidaad la man war ñu tudd ko idaad dañ ko préparé mën naa cee tënk rek benn bu gàtt muy nee na daana taqoog sëriñ bi ni doom di taqoog way juróom ba nee na sax daana langaamu ci loosu ku tedd kookee kon loolu taqoo la mulaazama la waaye li muy doon doon ku taqoog moom ci bi muy goneet dafa meloon ne ab list bu tiim ab événement ab xew-xew bokk na ca lam nett li nee na ku baax ki tëju ko diir bu yàgg ba mu tijjee nag mu mu wuti ko comme ni gone di def comme nam ma daw wuti ko nee bi mu accès sëñ bi daf koo kalak loxoom nii sëñ bi daal di taxaw sëñ Saal daal taxaw ku weesoogul ak sa baay di daw kooku day mel ne amagul ci xel lu ñor waaye danañ fi indi xelam mu ñor fii moom ba mu ko àkkee bi ko sëñ Touba defee nii mu taxaw nee na lam njëkk a seetlu mooy sëriñ bi maanaam sëñ Touba du yor mukk ci loxol càmmooñam alxuraan mbaa kurus daa daal di seetlu ne sëñ tubaa alxuraan ji mi ngi ko yor ci loxol ndeyjooram moom moom moom sëñ Saliou xamee na ca loola bi ki des it gis na ko muy for ay fepp bi mu foree fepp yi ba noppi la ko ne yegsil xanaa xamu ne boo njëkkoo ne yegsi ci sa yoon wu njëkk wa da ngay joggi ci kaw fepp yii te kon muy niroo ko yàq Cheikh Saliou Mbacke nee na fa la doxee bañu yàq ba nëgan kon dañu bëgg andi sëñ Saliou Mbacke en benn cadre su ko defee bu ñu noppee nag mawqifam position bu ngeen ko xasee xam nag ñu indiwaat ko ci kooku mooy kan ci njariñ maanaam ñu man koo jariñoo loolu nee na fa la doxee ba ñu yàq te ko ne xam ne sëñ bi ne léeg-léeg mu jox la cere ju fanaan joo xam ne tey bu doon kenee na danaan la wetti ji ko mu ne la jëfandikoo ko mbaa ñu fekk ceeb boo xam ne ci suba la woon mu sedd guy yi mu jëfandikoo loola ko man mi forloo na ma ay fepp ceeb yu ñu doon wàccee bu ma noppee dama koo for def ko sama tenq di ko xool mu di ma xool waxuma dara ma seq ko mu daal may ree xëy na kon loolu lim bañoon ak yàq mën na caa dellu Cheikh Saliou Mbacke moomu nag di yarkat boo xam ne yarkat yi dañoo dañoo wax ne muslih dafa am ay charte maanaam nga defar nit dangaa war a nekk ku xam tey ku lewet tey ku yeewu ñett yooyu lañ soxla ci muslih amaa nag ki saalix moom mën naa bañ a am loolu dafa bëgga a baax rek moom mën naa baaxal boppam xam-xam ba mën naa bañ a bari dafa bëgg baaxal boppam lewet ga mën naa bañ a demee noonu ndax wàllu ko keneen waaye boo bëggee nag branché keneen dañ ne na nga nekk aalim na nga xam na nga nekk xaliim te lewet ndax léeg-léeg nga gis borom xam boo xam ne ñàkk lewetam tax mënut a jàllale message na nga nekk xakiim mbir mu nekk na nga xam na nga koy invité bu dikkee na nga xam na koy partagé ak keneen loolu sart la ci maanaam muslah mu doon sëriñ tubaa ci yu baree bari ci ak ndawam ndax daana wax naan damaa xam yoon wi sëñ Saaliw daana ko wax ndax nekk naa feek borom yoon wi fukki at ak yaar te keneen ku ko yor ku nekk maa ngi fi bokk nekk loolu xekk ma la sëñ sëñ wax dëgg yàlla bokk na nekk feek borom yoon wi fukki at ak yaar te keneen ku ko yor yéen a fi bokk nekk tàmbalee ko ci magam ju baax ju tedd ja Cheikh Moustapha ba ca Cheikh Abdoul Ahad Serigne Abdou Khadir mi ci mujj kon ñoom ñëpp dund naa ñoom mhm. moo tax damaa war a xam yoon wi nag ndax nekk naa fekk waxul na damaa borom yoon wi ma jur loolu seen aaxar mhm. loolu du débat intellectuel borom xam-xam du waxee noonu mhm. mais dangay ngay da ngay ishraak da ngay fexe ba bokk ma damaa xam yoon wi ndax nekk naa fekk borom yoon wi fukki at ak yaar te keneen ku ko yor ku nekk maa yow fi bokk nekk kon kon bu yoon wi tegee ci loxoom dañ ci ñëwaat ci yeneen détails yu gën a yaatu kon ku war a xamu yoon la ki des sëñ Saalihu Mbàkke mu ñu war a jariñoo ah waaw ndax dañ ne yonent bi saa sallam moo ko ci benn xadis mu ne al jalisu saalih wal jalisu suu ku baax ku ñu war a taqool ak ku bon ku ñu war a sori daf ne salaa sallam mooy nettali al jalisu saalih mooy ku baax ku ñu war a taqool daa mel ne jaaykatub laaj koloñ noon laa ko mën a wax pour mag ñi dégg ko wala jaaykatub parfum ni muy jariñe noonu la ku baax di jariñe keneen Cheikh Saliou Mbacké jariñ na waa réew mi lu mel ne attar muy jaaykatu parfum ni muy jariñee client bi dugg si ci place bi ala aw juhin nag ci ay anam anam gi jëkk jëkk ci jariñ gi foo fekk jaaykatu parfum day mën a mayee ñun ñëpp mën nañoo ñëw kenn ku ne mu xeeñal la gratuite te du la laaj dara benn mën naa ñëw it doon ko jaayee téeméer wàññil nu ko en tant que dongay daara noonu jaay nu ko quatre cent ñaari njariñ a mën naa ñëwit jaayinu ko nu nekk ca biir palaas ba xet ga di ñu xeeñ te du ko sañ a bañ kon ku baax moom foo ko séenee mbaa nga jege ko mbaa nga laal ko ñetti njariñ yi da nga ci am benn bokk yi dama bëgg lépp di mantiq lii duñ fa wax loo xam ne day delluwaat ci ay marañi yoo xam ne day nekk shuzuuz li ñuy wax dañu nekk en direct rek ay nattuka ay maayir yoo xam ne nattukaay yoo xam ne dañ koy gis direct moo tax yonent bi saa sam ne kon da wuti ku baax danañ la jariñ mel na jaaykatu parfum bi yombalal la njëgg mbaa mu may la ko mbaa nga toog di waxtaan ak moom mu lay xeeñ te du ko sañ a bañ mm-hmm. aljalisu saalih Cheikh Saliou Mbacké nag ñett yëpp daje na ci moom mm-hmm. ñun ñu ñëw ci moom taqoog moom noo jënd si woon laj joloñ laj koloñ mm-hmm. mu yombalal nu laj koloñ bi wala parfum bi bañ mën koo am ci njëggu yomb ñi fi ñëwoon daan siyaare di dem te léeg-léeg ñu yendu fi mbaa ñu fanaan fi ñooñu ñooy ñim ko may gratuite ku ñëw mu laala laj ci sa tenq ku ci ñibbi nag saalit nga ba woote sax nag waaw ndax ndax njariña mel noonu ñeneen ña nga xam ne ñooy ñu dul nun te du ñuy siyaara sii dem mooy waa réew mi ñoom ñooy ñi toog ci biir réew mi xetoog sëñ Saliou di leen dugg ay njariñam di leen dugg te ñoom sax wax dëgg yàlla wax waxaale wuñ <laughs> jënduñ ñetti anam yooyu rek nga koy seddale su ko defee kooku mooy jaanib ijaabi bi kooku rek mooy boo taarifee sëñ Saliou waaye nag ginnaaw wax naa ne aljali su suur dafa am mooy ku ñu wërta àndal danaa ko andi li takk mila pour ma compléter yént bi saasam nee na ngeen watandiku ku baaxul daa mel ne kii wal ay uppkaayam yooyu gars yi di defare yeneen yi nee na kooku buy upp li ëpp étincelle bi mooy xel xal bi dana naaw laal sam yére mu lakk wala mu lakk sa yaram benn ngoog wala boog saxar si gand la nga jóge fa am soj ñaara ngoog wala muy temps tàngaay nga nekk fa ñaq tooy xëpp ñett ngoog kon loolu mooy tudd almadarra mooy lor yi nga xam ne dañ koy wattandiku ci nit sëñ Saliou Mbacké mucci na ci kii upp taal bi waaye doon na jaaykatu laj kolooñ bi wala parfum bi mooy aljalisu saalih wal jalisu soo léegi kon wax nañu waar réew mi jariñoo ci sëriñ bi mooy man toog naa ku dul ab julit ma tudd sëñ Saliou mu ne ma vraiment kookoo baax woowam lu ci yoonam ak lu mu xamee baaxam gi nattu ko ci taqawallaahi de du ragal yàlla ndax xamul luy ragal yàlla xamul sax sëñ Saliou lim gouverner lim jiite mais moom dafa yëg ne sëñ Saliou rek ci ay lim sentir mooy ku baax la loolu mooy li ma leen wax ne ki ñëw di jënd si parfum bi di ko xeeñ mooy Cheikh Saliou Mbacké ba ca catholique ya am na màggal goo xam ne fii ci Touba Moustapha Gueye rahimahullah moo wax sëñ bi ten tombeeg ma den rek sëñ bi mu ne ko sa chrétien ba ñëw na moo daan indi xorom sax jóge Kaolack xool ma loolu ki bëgg sëriñ bi te moom du jullit waxuma sax di ab murit ak di ab leneen waaye du sax ab jullit warlul sëñ bi xoromus màggal di ko andi ma ne nag man kenn dama daan nag xaaral ma gaaw jël bind lu sëñ bi tontu nan lay réassuré sëñ bi daal di ko ne ana mu ñëw mu daal di koy nuyu téye ko nii léeg-léeg mënu ko nacc bay bëgg kii mu téyewaat xam nga noonu muy def bu nekkee ci mbooloo téyewaat di ko war ne ko yëg naa la tombe chrétien boobu dafa yoroon ay papier bëggoon dem Amérique mu jox ko sëñ bi ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma ci sëñ bi dagg lépp ak ak màggal ni ngeen ko xamee téye kayit yi di yëkkati par benn di ñaan di tofli kon loolu mooy aljalisu saalih kooku day bu doo bu dul woon ak mbaaxu sëriñ bi ak yaatoom ak daj waa réew mi vraiment buñ ko ko waxee da koy mettre en côté fenn da koy jël teg ko fenn continuer la muy def mm-hmm. keroog am na ci sëriñ bi loo xam ne mm-hmm. keneen amu ko ci ngir wan ko ak yëg mm-hmm. ba mu noppee daa yegg ci tàllal loxoom ginnaaw bu ko joxee joxewaatee pièce par pièce a baa baag yam àndal yëpp daal di koy tàllal ñaanal ko kon kooku mooy nit koo xam ne njariñam dafa daj caami yàlla yëpp muy ab yarkat xam naa dana ñëw ci jaanib tarbawi bi incha allah rabbi waaye su su ardu bi kii rek mhm. da ngay def signe mhm. ñu jalaat ci beneen tomb mhm. ndax buñ ci jël rek mën naa jël lu baree bari kon sëñ saalihu doomi sëriñ Touba sëñ saalihu njëriñal ñëpp ñu misaal ko ci jaaykatu laj koloñ bi njëriñal ñëpp la musal nañ ñëpp ci aw ayam ndax moom du uppkatub taal asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf jërëjëf tabarakallah tabarakallah euh, yaakaar day gi ñu amoon ci thème bi. leer nag suñu bopp. ah yàlla tubaarkalla. te yaakaar naa ne mbokki jullit ak mbokki bi yi koy seetaan tamit. Hmm. ak waa réew mi dina leer seen bopp. waaye day mel ni tom boobu nga toll nag. Hmm. daanaka rek ci la daal di sosaas hmm. sosaat yëpp yi. ndax yaa ngi egsi woon nag sëriñ Saliou ab jàngalekat la. kon dañ lay laaj sëñ Maxtaar bañ ñu la doon laaj. diggante sëriñ bi. am na sax loo ki ak ku tedd gi waaye mm-hmm. waa Serigne Touba. Mm-hmm. waaye diggante Serigne Saliou tamit nag ak tarbiya xam naa diggante diggante moom waajuram sax nañ ci dellusiwaat mm-hmm. doo a ñëw ci tarbiya ndax boroom xam-xam yi dañ ne wekk moo gën may sëriñ bi nga jox ko cëram moo gën sëriñ bi nga jox ko million loolu mat a bàyyi xel la ci bokk yi ndax ñoo ngi ci jamono joo xam ne léegi sam përëg yaa ngi koy njëkk a dendaleeg sa përëgum sëriñ ba xam tolloo na am déet ahlu buxaari yu muy ngeen di dégg fa mu dëkk li leen may barkeb xam-xam mooy dañoo wekk seeni sëriñ ba wekk lu aju ci seeni sëriñ ni ko sëñ Tuubaa di waxee ci ci naaju na wekk sëñ bi ba wekk lim am ba lim am sax bul ko niroog lim amul ba ci ay jaamam ahlu buxaara dañuy jël lesson ci kenn ci ñoom day jël leçon ci sëriñam boo xam ne dafa jànge alxuraan ba mokkal lu mel ni nga ñëw sëñ Abibu Jóob di fa jël bind kii jël si bind nag léeg mooy muy ñokket ñokket yi mu ne ko waaye looy def nii mu ne ko soo may jàngal sama doomi sëriñ day dawal ak cercle di jaar di jaar ci couloir bi te saa yu ma ko séenee damaa war a jóg màggal ko rek moo war a bëreet bëreet ji waaye du dara ci man xam nga kon ñoo tax ñu màggal moo gën maye jox nit un milliard te tegoo ko fenn bañ koo jox dara te wormaal ko parce que sëriñ ñi nga jëriñoo ci moom ci wormaal mu ñëw ci sëñ Saliou Mbacke képp kuñ tuddee xaadim ku ne xam nga ne boo dikkee ci daara bi du la wax xaadim tur woowu du ko du ko wax képp kuñ tuddee maam jaara boo dikkee ci kër sañ bi dootoo déggati maam jaara xaadim ji dañ koy soppi cheikhuna wala cheikh kese jaara ji ñu soppi ko maam busa lu ko waral màggala ngi ci buñ ne sëñ diw nga tiit xam ne kooku du sa moroom waxuma la nga ñëw ba gis sëñ diw nag <laughs> di ko tàppaas orma jooju la Cheikh Saliou Mbacké jëkk a jox Sëriñ Tuubaa ba ca des mas nañuy waxtaan bu waxee sëñ bi rek bu la nee ko bu la sëriñ bi Sëriñ Tuubaa la ci jublu moom amul keneen ku muy dugal guddi la woon muy wax ne ab murit bu ne war ngaa jàngi ngir nga bokk ci ñooñu sëriñ bi tuddee euh, euh, ñoñam daane laqante nii yaa malikil alfaada ne alfaada la <gasps> teg ci guddi la maa ngi moom kese ak yàlla parce que wax boo bëggee mu inna min barakatil qawli an yuza ila saahibihi soo bëggee wax importance neel waxal ka ko wax ba yàgg mu ne wa bi turaqi xisbaka alxufaada boobu mi ngi doon jooy kon xorma mënta weesu loo tudd turam xorma mënta weesu mënta mënoo nettali waxam ja yaakaar naa loolu xorma ko weesu koo xam ne mënoo tudd aw turam mënoo nettali ay waxam te rangoñ tuuruwul ok moo tax cheikhul euh, Mouhamadul Qabalaani yi daf ne woon école yu njëkk yi dañoo jàngaloon seeni doom jooy école yu mujj yi jàngal seeni doom ay diplôme bi diplôme yi dikkee nag jëli fi jooy yi tappale yi tàmbali lu leer wax moo tax moom du tudd sëriñ bi direct ci turam wa mas nañoo woo njàppandal fekk booba daa julli ma tolloog fenêtre bi boobu mu daan ubbi muy tolloog wetoog càmmooñam benn waaye daan ne barki sëñ tuuba sëñ bi daan ne këng-këng ku ne fii mën a ko man mun <laughs> naa dama ne wool ma yëpp mu woo waa daara jëpp ñu dajee mhm. mu toog nii ma toogee mhm. ñëpp toog ci kanamam kenn bu dikkee naan mbaa kenn manqué wul ndax buy wax ñaare message yenn yi mhm. du bëgg gone ko ca gone gu ndaw ga sax ñàkk ko fekke ba ñëpp teewee dane sa laaw de damaa bëgg ngeen xam ne turam wu tedd woow yi ngeen di tudd day ñaara war a tudd ko wala ñett bu ma juumul dugg ci gaal muy bëgg a lab nga tudd turam wa te benn yoon doy na ca ak gaynde dàq la ba di la bëgg a jot Mm-hmm. nga tudd turam wata benn yoon doy na ca kon yaakaar naa kon deesu ko tudd mm-hmm. ndax ñun dugg ñu ci gaal muy bëgg la mm-hmm. deesu ko tudd nekkuñu ci ab dédd bu ñu gayndey jàppe am na ci beneen rewaay boo xam ne ku ko nar tudd sax na ngay giñ ci man baa ngay giñ ci sëñ Sall Touré nga xam ne moom joxe na jëmmam moom pour ñu aar turam bu tedd caa tegaat ne képp ku koy giñe day te dëgg yaa yées ci say nawle kon xorma munta weesu bokk yi lu mel ku tegoon foofu kooku nag mas na wax ci ay waxamit ne sunu mbir ñi ngi ko teg ki imaanun saadiq amalun saalih ak ñetteel ba en tout cas daal ne woon euh, tarbiyaam gi mi ngi ko tënk ci gëm gu mat sëkk wa wa niyatun euh, effectivement ñett yooyu la ne sëñ Saliou nee na ci la tabax mbiram pas-pas bu dëgër jëf ju sell gëm gu wóor yaakaar naa loolu comme ci la mooy chiaram comme ab lay Ablaye Wade chiaram mooy nangam keneen chiaram mooy nangam muy parti bu ne dafa am benn chiar ba benn signe moom signe am nee na mooy ñett yooyu mas naa ko waxtaan ci Maroc mm-hmm. hôtel Hilton muy hôtelu Mohamed six nga xam ne ñëpp nga fa ay diplomatique ñoo fa nekkoon ma koy ard ci loxol arabiya bi ma waxee dañ ma ne kii nga wax nii lu mu bokk ak Xasaali ndax mu waasafaat yi culture maanaam qualité yi qualité Xasaali la man leen mi ngi dund benn naa man noo non yaa axi saddiq nii walaay mon frère il faut tu me dis ma ne ko xaqiqatan huwa fi qayd ala qayd al xayaat parce que bi may wax nii 2003 laa ko doon waxtaan si baa ngi fi jëlee 2007 2008 kon moom sëñ Saliou dafay insaan aalami yi dafay nit ku ku mondialisé mhm. foo ko wax boo waxee ay melam nam mel mhm. ñëpp daañu xam ne nii la nit ku baax war a mel mhm. bi xaddi nazar nag ci ay jébbaloo topp waaye moom dafa valable fépp daa mel ni dollar wala euro dollar réew moo ko tàllal danañ la fay boo ko doon wasf daqiq al wasf daqiq da nga mooy dollar c'est taux bu mu maanaam am la ba mu dem mën naa jëf leen teg moom kon nag Cheikh Saliou Mbacké ni mu tegoon fi mu tegoon sëriñ bi mbokk yi mhm. mooy dafa aaroon turam mu ormal ko tegoon sëriñ bi daf koo jëloon kaqaduwa mhm. roy teef la mhm. mas naa wax ne sa laaw day yoonu murid li ci ñeent yi ci jiitu mooy yii li ci tege da caa tege daal di tudd njàngum alquran ndax ni ko sëñ bi fonko teg ca njàngum xam-xam xam sa diine daal di ma war sax sasu wi sasu wi gaa yi ci daara ji xam nañ ko daana wax naan sa laaw lii de mooy sasu murid mooy juróom-ñeenti téere yooyu ku ko mokkal nag bu la neexee maanaam ku ko man bu la neexee nga dolli ci waaye ku fi yem it mooy saw sas daani sala boo ci dollee nag leneen loo wax manes na koo weddi la loolu kon moom daana jàng lu xam-xam daal teg ne njàngum xasiida mooy ñetteelu tomb yoonu murit biñ ko sosee ak ñaqu jë ñaqu jë mooy nga takk sag der dem tool liggéey kon kooku loolu la jël ci sëriñ bi danañ ci ñëw ci gën a yaatal incha allah bu ko waxtu wi laajee Cheikh Son bu jërëjëf jërëjëf sëñ Makhtar tabaarakala tabaarakala sant nañu bu baax a baax xam day mel ni mbokk yi fi teew jataay bi mi ngi mel ni ñoom ñëpp ñu ngi ne teg tekkaaral gi nag li nga xam naa li ko waral mooy wax ji dugg na leen te jàpp naa ne tamit ñii seetaan waxtaan wi mhm. nii mu ñu duggee ñu ñu teewee jataay bi mhm. ñoom tamit la leen duggee noonu kon bala ñuy ñëw ci sañ Abibu mhm. muy am kàddu yum mu sànni ci waxtaan wi. Mm-hmm. sëriñ Saliou Mbacké wax nga ñu. Mm-hmm. mooy kan. ndax wax nga ñu waay juróom wu tedd wa. Mm-hmm. muy Cheikh Ahmadou Khadim. wax tamit waay juróom wu tedd wa muy Soxna Faati. fotool nga ñu tamit aw meloom. fotool ñu tamit lenn ci ay jikkoom. fotool ñu tamit ab liggéeyam muy tarbiya. xotal ñi tamit ku tedd ki nga xamante ni mooy waajuram fa mu ko tegoon ak royukaay la ko defoon tamit mm-hmm. loolu yaakaar naa leen bi suñu bopp mm-hmm. waaye kenn ku ne xam ne waajuram wu tedd woowu tamit dëkk bii ñuy defee waxtaan wi daa nekk dëkk boo xamante ni dëkk boo xamante ni moo doonoon léppam muy Touba boo bëggan nag ngir ñun taalibe yi ak mbokki jullit ñi jariñoo ci Touba muy dëkkub sëriñ bi mm-hmm. ak tamit nun waa Touba tamit. Mhm. nun war a jariñoo ci Touba. loolu bëgg nañ nga. baarakallahu fiik baarakallahu fiik xam naa ma dooleel la benn tomb. Mhm. ci tarbiya ndax mhm. ginnaaw moom. liñ séddale lépp dajaa jël tarbiya muy wàllam daa mel ne. ci loo na ne ñun ñëpp xam nañ ko. dañ ne kii yar dafa war a dégg ñi muy yar. dafa war a xam bii abi temps bi muy yare ban temps la lan moo xew ci jamono ci ay yàqu-yàqu nit ki boo ko bëggee yar ban environnement nga koy intégré est que da nga koy bàyyi ca taaxee wala da nga koy ci àll ba ay détails yu yaatoo nga mbokk yi genn këruk sëñ Saliou Mbacke gu muy yaru gu muy yare gu jàkkaarloo geneen kër te tudd daara ko ko ca xam ne ma ko wax su dee gota léegi la dëkk ba màgg sëñ sëñ abi bi moo fa nekkoon waaye jublul woon a taqoog waa dëkk ba jàkkaarloo ak ñoom ay néeg léedeet boobu ba léegi nag geneen kër gu muy am gu ñu yare gu nekk ak ndànd foy foy la mooy mm-hmm. kër goo xam ne saa yoo génnee daj ci àll bi mm-hmm. loolu mm-hmm. lu ama am solo ci yar la ndax nit ki mënoo ko takk wiin mënoo ko former fekk yaa ngi dugal keneen di génnee munta tane mais su fekkee daa nekk fen di tànq di gis lenn di gis ñenn di dégg lenn bu yàggee day làgg ci loola bu fa duggaatoon bu fa jógoon dem Paris dootu am jeexit ci keneen surtout gone gu ndaw loolu tax sëñ Saaliwu technique bi mu njëkk a def ci yar jaaxal ñi képp ku yare mooy ñeme gim ñeme àll ak ñeme gim ñeme wéetaay ak ragal gim ragal jonjoo ci ku muy yar loolu lu yéeme yéeme la ba tey awalan thaniyan jumtuwaay yim def muy ab yarukaayam ginnaaw waxaguñ nag ci sifaat yi nga xam ne mooy nit yéem ni muy composé mais dafa am ay alaat jumtuwaay yu muy yare gone gi ne cëpp ci moom ginaa ba ko miinalee boppam ba noppi alquran la cee jiital xanaa loolu kenn du ko critiqué bu fekkee ay julit la buñ dul ay julitit nañ tontu kon la borom xam-xam ba tontu woon keneen ka dañoo ne ko yéen waaye lislaam da ngeen a sonal da a sonal seen doom yi mu ne ko effectivement mu ne ko ndax lan mu ne ko sunuy doom juróom benn fukki isib da leen di xaar ñu war koo mokkal bi ci desit ahadis nabawiya yi nga xam ne yonent bi daf koo soloo dañ ko war a xam te buñ noppee dañoo war a pëccëxoo ak yéen ci àdduna ngeen bañ ñu ko ëppalee nee na goog gone du am jot am solo la wax mm-hmm. moo tax mën a ko nag yéen nag ci ci testament ngeen di wax mm-hmm. testament mooy loo xam nga ko tekk ci pël mën nga ko tekk ci xalpulaar mën nga ko tekk ci wolof mën nga ko tekk ci loolu la neex mm-hmm. testament bi daal li wax mooy moom mën nga ko traduire ñu ne boo ne woon xulaas bi rabil falaq ñu ngi lay wax waa xaar ba xam min sharri ma xalaq nga ciy tegam déet boo ko ci tegul ñu la juum nga kon islam li koy xaar rëy te bari waa ji ne ko nag ñun suñu doom yi juróom benn fukki isib da leen di xaar te dañ ko war a mokkal dañoo war a xam ahadis nabawiya liñ solo ci seen yonent te dañoo war a xam it ñi ko sos ñi ko solo yéen nag yeson bu ngeen ko waxee bu leen neexee lu leen neex ngeen teg ko ca kon lii tax kon yar war Cheikh Saliou Mbacké njëlbeen gi ci gone gi li muy njëkk a def moom mooy xamal ko téere bi yàlla bi bil xikma nag wal mawxidatil xasana parce que bu ko doon xamal téere yàlla bali ko ñu koy gër bala ko gëdd nga ne waaw waaye déedéet programme jàngaleem adduna mun ta am tatawur mun ta développé wu ba contre sëñ Saliou Mbacke ci benn point ci jàngale ndax lan xale bi dana ko logé foo xam ne mooy gën kër baayam li ma wax lu leer la ndax ñi may waxal duñ ay jàmbur ci man duñ ay malien li ëpp ci daar ji bi ñuy fanaan ci néegi tabax seen yaay ak seen baay bàyyi ña ngay fanaan ci néeg yuy wale ak seen na lu leer laa leen di wax. benn bi sëñ Saaliw di fexe ba donga yi di lekk ka naan ak xëy di naan kafe am na ñoo xam ne dañuy xëy di serete ci bant mooy duñ xëy naan kafe ci dëkk ci réew mi. kon xale bi nga loger ko foo xam ne moo ëpp sécurité kër baayam nga di ko jox loo xam ne moo gën a nekk produit alimentaire bu bu bu bu bu ëpp solo la baayam di lekk. Mhm. mbokk yi kooku deseelu la dara. ba noppi nag. bàyyi bu ne dafa war a yar la boroom xam-xam yi wax. ñu ne waaw mu ne waaye bàyyi léeg-léeg day tële ci yar. <laughs> waa réew mi bu leen ay ay yarkan ngeen ñoo gën a xam dañuy nax seen bopp. am na kër yoo xam ne jigéen ñaa ko yor. ñoo fay dogal. waaw xale bu màggee ci kër jigéen joo kër goo xam ne jigéen a fay dogal kooku bu màggee lu muy lu muy jàpp. ndax dana baax am na kër yoo xam ne baaxoo wuñ di jàng alxuraan kooku bu màggee kër papaam mën naa am ay comportement yu bari mais du mokkal alxuraan am na sax kër yoo xam ne góor góor góor góor nañ ba mën a jàng alxuraan mais mënuñoo jàng xam-xam su boobaa kon kooku dana manqué sëñ Saliou jël mbooleem liñ soxla andi ko ci daaraam installé boo dikkee xale bi da nga loosi fu baax da nga lekk lu baax da ngay taxaw ak moom dana la jàngal alxuraan dana la jàngal xam waaw léegi kon kooku ndax wurta yare as-su'aalu alladi yatrax nafsa question bi posé boppam mooy est-ce que kooku warut a yare sëñ Sall bu dul woon daa bëgg a yare bañ gis muy def système bu beneen gouvernement bi war nañu ko jàppale muy nekk ab yarkat mhm. parce que kooku insaan nit kuñ soxla la mhm. awalan mhm. bi ki des muy nax-naxal xale bi di la ko nax-naxal loo daana wax na sa laaw day gone gi nga fexe ba mu weg la moo gën nga fexe ba mu ragal la maanaam nga fexe ba mu rus la mhm. nee na moo xam moo gën nga fexe ba mu ragal la mhm. ndax nee na ki ragal moom feeg mi ngi lay gis mhm. day ragal a def loo bañ ki rus nag nee na day bañ a def loo xam ne buñ ko ko nettalee ëllëg mu ne la yaa ko def xoolal ma boobu xekk ma wax naan ku la gën a nangoo jaxasoo gone it yaa ci gën a mën a am li ma bëgg léeg-léeg mu gis nit koo xam ne la koy soppi bëgg ko du mën a jàngaleem sax xëy na waaye na ko gone yee ñemee te loolu murabbi ñi nga xam ne dañuy jàngale ilmu tarbiya bi boo demee ci mustalahaat qadiima ma xadiis yi dañuy wax nit ki bu am xelam naawee dootu amum xel kooku d'accord nañ ci ñun boo ko ne demal jàngi rek mën a fëy jë mën nga ko ne demal toogi bu jàngee du ko xam yooyu ay détails yu gudd la bëgguma guddal jataay bi sëñ Sall ko daan invité kenn musta gis ku am daara di fa jàngaleelu gone ga daw ñibbisi ci yow mi borom daara gi dem demu ci ndeyam ak baayam kooku laysa bil mantiq c'est pas logique te da ngay gis koo xam ne day dawee got mhm. mbaa mu dawee xàbbaan mhm. mbaa mu dawee njàpp ndal ñëw ci kër sëñ bi ko mhm. koy dawul day serlu ba doon koy daw akay danaan si wu dem ñibbi seen dëkk ok mais moom ku daw da ngay ñëwaat ci moom ci biir kees gi di njóyanteeg moom ba mu jëlal la boppam yóbbuwaat la ci daara ji kooku koy wax dëgg sëñ bi nit ku mel noonu il faut nag ngeen am ay maqaayis ay ay ay décamètre ngeen teg ba xam da ngeen mën sa gis ku mel noonu moom déet te lii ñuy wax fii ci kanamu ñëpp kat moom la ñëpp xam sëñ Abibu mi boo xam noonu lay xam boo waxee moom njida ñëpp moom la mm-hmm. kon kenn mës a gis ko dawut di wuti sa ab sañ daaraam mm-hmm. li ñu xamal dem sa sa yaay sa baay mm-hmm. xanaa kon dana niroog ansihim bi abaahum kulla xiini sëñ Tuubaa waxoon ne sama njaboot na ma leen fàtteloo seen baay ñu wéttalikoo ma loolu yey na ci jëmmi sëñ Saliou Mbacke tarbiya gi dafa xóot ndax mas naa toog ba yàgg mu ne sallaahu day li ma te sante yàlla mooy boo masaana bëgg a jàng xalil dangay dem mbos soo bëggee jàng naxu nga dem kokki ñooy waa muqaddamatul kokki yi qaala muhammadun kokki yu daari wal abu min durriyatil muxtaari boo masaana bëgg a jàng arut da daan dem kër ma kala xam nga loolu gox yu soree te sottee boo bëggee dem mbos mbos nii la jëm soo bëggee dem euh, euh, euh, kajoor nii la soo bëggee dem jàmbur kër makala nii la kon yooyu gox ca jamono yoom ya muy wax nga xam ne dem fenn yombul dem man faa toog a gën a jafe sëñ Saliou nee na li ma ta sant yàlla mooy lépp nga ci biir këram gi kay moom da ko wax rek te ataxaddus bi ni'mati shukrun daf ko wax ci anamul sant yàlla ne léegi gone gi ci biir daara ji mii ngi jàng alxuraan ba mokkal ci xaafis ci am kaang su nekkee kaang neppee ci kaang mi aalim baa ngi koy xaar ci jàngalaat ko xam-xam te xam-xam yi bu ñu koy jàng chattal ulum lay doon xam nga ne diggante aroda ki bayaan ak ay euh, shuara sittal jahiliya maqaamatul xariri ñu ne la ko koy jàng mooy kat ñu ne ku muritu ji woon kenn mas ko dégg kenn ku muritu ji woon moo jàng loolu ki yoroon daaray kaamil ji bu yàggoon ndaw mas na ñëw fekk ma bind ay bayit maraamuka xayru rawmi yaa cheikhu saalixu maqaaluka dikrun kulla yawmin wa laylati fa yumnaaka yumnun cheikhu yusraaka yusruna wa maraaka mithlu rawdi yaa nia thamrati mu ñëw ne ko bind lii ma ne ko ku muritu ji woon mu ne kon bay boo ñëpp muritu ji li am li am solo rek shahid laa bëgg kon mu ne bay boo ñëpp muritu ji man mu ne ma nga ne la ma ne ko lii ku muritu ji woon mu ne ma foo muritu ma ne ma ne ma ko sëñ Saaliw ma ne ah mën naa nekk waaw parce que aalim la ku xam la mhm. kon ki noppi ci yow mhm. alquran nekk sa dënn nga bokk nga bokk ci ñi gën a mën a rafet mbind boo demee kër Sëñ Saal da ko fekk kim nopp ci yow luxal arabiya nga jekk ko daanaa wax comme naar léeg-léeg mu ne ma ismax li s'il vous plaît yaa ma gën a dégg arab dégg nga mës nga dégg loolu léeg nga wax ni mën la ayna taxarrajta ana foo génne hal jaamihul faysal am kaza nga xam ne dañu université yu mag yi mën leen déedéet Touba ñu ne ma ma ma maax boo ne Cheikh Sall ne man huwa daak mhm. kan mooy kooku mhm. te ba noppi ñoom booy wax ñoom ñu baalu la mhm. ngir axta luxawiya yi ñuy toggoo ak axta naxwiya yi ñuy toggoo ak adamu taabir kalima bi dëqa voilà kooku mooy Sëñ Saliou Mbacké duñ ko man ni nga ko mënee duñ ko jekk ni nga ko jekkoo te yow mi ko mën jekk ko foo ko xamee kër kon kooku ku mat a jox ormaam la sénégalais nit ku ñuul moo ko xe moo bët buy xool xeef ñooyam du ko gis ndax daf ko jege moom mu li leen sore rek la ñuy la lootaabe ji mhm. lootaabe ci olof moom la ñuy wëri waaye sëñ Saaliw mii ba ko arab yi amoon mbala ñeneen dëkk yi ami xel mhm. nag ni fekk nañu ñu koy jàngale ci biir université bi mhm. mu nekk ci benn euh, faculté baax ne naa la faculté tarbiya ci Cheikh Saalihu Mbacke direct kon nga noppi ci gone mu dégg diineem waxuma ko de muy way ci arab mën a nekk naaqid adabi mhm. kooku ba tey mbokk yi loolu kenn du ko oyofal mhm. nga noppi ci gone mhm. muy nit koo xam ne insaan kaamil mutawazin nit ku nite <laughs> foofu lu am solo la borom xam-xam yi dañ ne nit dafa taxaw ci diggante ñetti étape benn étape bi mala dëggantaan la benn ata étape ba malaaka dëggantaan la benn baaxu ci ba ca diggante bay nit soo ko defee muy mala xayawaan rek la moom mën naa rey nit mën naa jam nit mën naa saaga nit mën naa sax futti ko ci biir nit kooku jikko mala la naa dem itam du xam dara ci àdduna lu dul jàng ak werd kooku jikkoy malaaka la suñu borom nangu narul àdduna bii ñi koy dundal di ay sujjootkat ak rokkookat déedéet ay baykat ak gorkat ak nappkat ak sàmmkat ñoo mën a dundal àdduna kon kon bu yéegee ba mu ëpp ba dem ci malaaka ne yàcc yàccaaral yu mënul ëttanul lu dul xalima ak akub jukki kooku du defal du participer ci développement te ki ci mën a participer mooy koo xam ne bu dem jot tool jotee mu dem tool bu yoree machine bi xam ni mu koy installé te bu wàcc jotee bu wàccee sangu ba set nekk doomu aadama joo xam ne ku ko gis da ngaa ko xanaa di moo tool kooku moo mën a avancé adduna mm-hmm. kon moom doomu aadama bu yéegee ba mu ëpp du baax mooy day nekk malaaka moom daal rokon su jot dong ci lañ ko bind su wàccee ba mu ëpp day mel ne mala euh, mala lekk ak naan ak nelaw dong lañ ko bind ñaar yooyu benn baaxu ci su defee nag bu mosee dara ca lële muy niru malaaka ma ca ca jaamu ga niru ko ca su jóodi ya day wàcc nag niru malaan malay ci lekk ga ak naan ga ak nangoo sonn ga suñ ko boolee ñaar yooyu ngay boole rek mu nekk doomu aadama ci digg bi moo tax suñ Saliou Mbacke da lay defar yéeg ci kaw defar la wàcc ci suuf defar la su nappee ci yow nag nga nekk insaan parce que nit dañ ne su la ragalee su la gisee li nga koy sant lépp dana ko def waaye nag soo dëddoo nag lu ne mën na ko def sa ginnaaw sëñ Saliou douze mille personnes ba mu fiy moom la fi bàyyi ñoo nekk nekk ñu nekk en cours douze mille personnes yëpp ay sixtiiniyaat lañ maanaam ñoom ñëpp ay soixante la jëm suuf mais kenn bokk ci quarante ak trente douze mille personnes nga yor ci benn organisation bu am ak ak normalité. Mhm. déggoo ca kenn kuy def laneen. Mhm. si sëñ bala ngaa xam ne moo jafe nga wut cent personnes. ñu nekk ci ginnaaw xur wii. chaque jour da nga dem police. yaa nga gendarmerie. yaa yaa ngay jéggalu euh, ña nga dendal. lu ko waral. Mhm. borom xam-xam daf ne. nit ki nga taxaw ci kanamam di ko gëdd ka saaga. nga jàngal ko yoon wu ñuy tegee. moo gën a yomb. Mhm. parce que mënoo tout le temps ngay taxaw ci kanam di gëdd ka saaga. Mhm. boo ko xamalee yàlla. Mhm. noppalu nga ci moom ndax ruux xamut ku boro boroomam. ar ruux la taarifu ila rabba. moo tax ñu ne borom xam ne ko ala bi dikri lay tatma inul qulub. nee na ruux saa yu xamee yàlla noppaliku. noonu lay tekki. nit ki boo koy jàngal jàngal ko alxuraan alxuraan ja dugg mhm. nga jàngal ko xam-xam charia mhm. bi mhm. xam-xam ba dugg nga jàngal ko muallaqaat charia yi lépp lu ñu waxoon ci àdduna nga mën a toog fa nga toog ci sa biiri néeg yaakaar naa xunaa London moom sañ ba sañ abi bu jom mi xam na toog fii di xam la ca Britannique toog fii di xam la xew Amérique kooku nit a koy def waaye tarbiye nit bu sëñ bu jubee sëñ bi xalan ko ñëw sukku raam boole si gannaaw sëñ bi ñeme naa tox ñeme ñeme naa dandal randal lu ko jar kooku du mu rabbi loolu mu naan def nag fexe ba nga nekk xam sa borom fexe ba nga xam itam lan mooy dox ci adduna bi nga xam ne da ngay daal di xam ne daanaka euh, jamono yooyu dañ daan wax naan ay jimi kelte rek ay ay ay ñu yàgg ñooñu ay sàcc ci raak ak yooyu nga xam ne da ngay toog daara ji di joxe information boo xam ne directement ndax yow yaa ngi xunaa London rek ngay ngay suivre loolu mooy niteel nit bokk yi moo tax ak nitam fu mu jógee ca daara ja mhm. du nangoo doon ab dongab daara daa iman mhm. dongab daara ak donga di su ci dëkk mhm. da ngay xam ne yaa ngi woon ab donga di jàng bi nga noppee léegi dégg doon nga ab responsable yaa président yeeg ministères yëpp war ngeen di mën a mbëkkante loolu mooy ku mat waaye am na ñoo xam ne bi ñu noppee gisee donga fii gisuñu sëriñ bi gisuñu lu bokk sëriñ bi duñ xam dara li ñu xam rek mooy tàmm banque tànk ak raam ak sukk waaye ki des yëpp mënuñu ko réglé kon nag tarbiya ak sëñ Saliou Mbacke dafa nekk chumoliya mhm. dafa nekk loo xam ne dafa capable mhm. bàyyiwul dara mhm. loolu moo waral nag ay nitam buñ demee ca commerce ga dañ cay ràññiku lool suñ demee bitim réew dañ cay ràññiku lool suñ demee ci seeni nawle yañ tudde ay ñu yar woon it wala ñu yaru ji woon daañu ca ràññiku ndax dañuy am ay yeneen yoo xam ne ñooñu duñ ko am tarbiyaam kon lu yaatu la tàmbalee ko ca ba gone gay gone de ko nax-naxal ak nangoo ko nax-naxal daana àggoon na ci ba ne sa law ku nangoo doo dong yurub jukki di ko xool bu leen ko def dara xala nga noonu mm-hmm. ku nangoo toog yurub jukki di ko xool képp bu ko def dara mm-hmm. mujj mu ne ku nangoo toog ci daara gi sax bu <laughs> xoolal far kon kooku mm-hmm. am àgg na ci bis mu ne yéen li leen war mooy jàngal la ci des bu ci jotee ka ko ci war def dana ko ci def xanaa loolu mooy nag kon yéen seen yoon nekku ci kooku ay responsabilité daan jël en tant ab yarkat loolu yi nag ku ko weddi demal ca daara ji da nga gis koo xam ne li ñu tuddee woon euh, fàqkat yeeg dawkat kat ay ay tur yu bari amoon nañ ko mm-hmm. waaw mm-hmm. danga nga gis ñu xëy xëy kenn xëy ci rek mm-hmm. daal di jaayante tàmbali di jàng te kenn du xam lu koy jàngloo mën naa dem ba bindub kaamil wala mu sori ci mu jàng lool kon kon bu doon na jàngkat baa ba mu ca tëlee vraiment waa ji wut a jàngat mais da ngay gis seet seet kooku xëy xëy tuub mel ni ku tuub mel ni ku mel ni ku soppi ko te bu te bu tuubee nag lam doon def kenn dutu ko def looti mm-hmm. kon loolu mu wax ne bu jotee ka ko war a def dana ko ca def mm-hmm. man loolu laa teg muy sama teg asalaamaaleykum tabarakallah tabarakallah tabarakallah jërëjëf sëriñ Maxtaar sant nañ bu baax a a baax a baax mm-hmm. ci bi ngay daaneel la suñu menn mbokkum taalibe di jëwriñ ci kër gi sëñ Balla Jaxate ñëpp xam ko ci wetu sëriñ Cheikh Saliou mu di ko jàppale ci liggéey bi egsi ci jataay bi ñu di ko nuyu te di ko jox ab cëram di ko yóbbante nuyoo tamit ca suñu sëriñ bu tedd ba mm-hmm. sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou mm-hmm. di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tamit ak mm-hmm. ñu del si wàcc sëñ Maxtaar ndax ni ma ko waxee léegi wax nga sëriñ bi wax ñu ay jikkoom wax ni muy wax ñu tamit ni muy bu noppee ci doomu aadama bi doomu aadama bi ni muy mel ak ni muy jariñe réew mi ak ni muy jariñe boppam waaye tamit ni muy jariñe ay waajuram xanaa kon nag ñu barkeelu ci dëkk bu tedd bi nga xam ne fi lañ nekk di ko defee waxtaan bi doonoon dëkk boo xam ne sëriñ bi moom rek la bëggoon sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul hmm. sëriñ bi tamit Saaliwu Mbàkke am liggéey bu am solo tamit xam ne def na ko ci dëkk bi hmm. boo ñu doon jàngatal nag hmm. loolu lan lan loo ciy baaxee jërëjëf euh, Cheikh Souhaïbou xam na la ci nag moo xëyul ci cin la ñu jeexal ci yar daana wax naan ku ñibbi ci say bokk te ba nga demee saw tur soppikuwul fa ñoom ñu mujj naan la sëñ Souhaïbou sëñ Habibou lañ daan def bu buñ la séenee di ko ñemee def ba tey nee na kon war ngaa seetaat sa bopp la nga fi doon wut amoo ko loolu bokk na ci xikmaam ku ñibbi ci say bokk te saw tur soppikuwul ñu naan la sëñ son bu sëñ bu sëñ sëriñ sëriñ te la nga daan ànd ak ñoom di ko def ba ngay gone boo demaatee ñu ñeme ko ànd ak yow di ko def nee na kon nee na la nga fa doon wut des na foofu laa doon tëje ci tarbiya gi Tuuba ku nekk xam ne cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba li mu gënoon a bëgg mooy Touba. moo tax bi ko suñu di nattu ci Touba rek la ko nattu fii nii ñuy wax yëpp nattu suñ Touba bépp Touba rek la ba mu demee gabang wàññiwu ko dara mais ba mu ñibbisee nag lañ ko ne fii doo fi ne xam nga looloo gën a metti fii ne suñ Touba ku ko ne woon kaay dem gabang te boo desuwaar nga nekk Touba buy moom waaye ba jogee jógee gabang joge ci yéen keroog ba muy dem njaareem bi mu jubee kàdd balloo ji gi lañ ko ne boo fa jaaree du baax te tubaab bi néewu ko boo fa jaaree du chef de canton bi néew ko boo fi jaaree du baax suñu borom moom ko séqaloon moo ko ne fee waroo dem lu méttee noonu mbokk mu dem njaareem ne fukki at ak juróom léppam Touba la boo jógee Touba mu teral la buy wax ci Touba ñëpp xam ne lii la gën a bëgg kon nattub Serigne Touba mooy Touba nattub géej gi par rapport ak Touba mutu ci un virgule pour cent il faut indi mbir yi ci ni mu doonee loolu la tuddee borom xam nga tuddee ilmul qiyaas da jël benn affaire nga natt ko ci mbir xool na mel ku ne xam na ne sëñ Saliou ni bëggee sëriñ Touba ak sëñ Touba ni mu bëggee Touba ñaari bëgg-bëgg yooyu dañoo croisé moo tax sëñ saaliw lu muy def ci Touba lu nekk day jël armeem arme bi mu yor di geeral sëriñ bi di ko war ne ko fa nga gënoon a bëgg te yàlla nattu la fa bal ma defal la ci lu fi kenn mënut a def noonu boo ko déggee noonu rek léegi li ci def lépp day daal di yomb waral na bu kenn defe na it daa nekk xalifa am xaalis defar Touba kooku xataa la sëñ Saliou bi mu participer ci Touba li participer ci lu sëñ Touba am jumaay Touba jii defe naa ñebbe jum bayoon mbaakol la la njëkk a jaay jox ko <laughs> joxe ko ci ngir bëgg rek jumaa ji kawe mhm. sunub liggéey nun ñii ñëpp suñ masaana liggéey ba noppi mhm. ka ko daan yóbbu da ko naan ka fi nekkal sëriñ bi mhm. jamono suñu abdulaat man laa fi fekkee mhm. bu ko masaana jox ka ko yóbbu cib saako la koy takk ay milliards nga takk ko cib saako sàmba ñukk mhm. sàmba ñukk mooy euh, si saako siyaam boobu am xoolu verte ci digg bi ci la koy takk ba dëgg ne ko demal joxal ko suñu abdu te bu fa bu fa nekk ndékki lam ko koy joxe mooy nee na nañ ko def ci liggéeyub sëriñ Touba bi daana wax naa yéen li ngeen may jox dama koy def ci liggéeyub sëriñ Touba bi li ma sama borom di wërsëgal ma leen ciy dundal bu kenn defee ne danga nga doon bay di lekk déedéet da ngay jox sëñ Saaliwu bay mi mu jox ko ki fi nekkal sëñ Tuubaa mu def ko ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi mm-hmm. liggéey sëñ Tuubaa nag benn génn ci dëkk bi mm-hmm. sëñ Tuubaa mm-hmm. ko Dakar amu ko sax njaareem gii kenn benn doom sëñ Tuubaa bu fi nekk bu mas a def benn cotisation bu ñu def bu ñu def mu génn dëkk bi amul ak mbayam ni mu daan yaatoo ba mu nekkagul xalifa général des Mourides ci ñi gënoon a mën a bay ci la bokk ndax 88 89 la jot xel ko kon sorewut ak fi mu nekk xalifa waaye lu trente trente et trois la sañ ci got ku tàmbalee bay trente trois ba quatre vingt neuf quatre vingt dix te la nga daan bay mosoo caa lekk dara nga tàmbalewaat nekkub xalifa liñ lay jox moomoo ko suñ to suñ to sinal daan wax ne liñ koy jox moomu ko liñ koy jox ci turu sañ tubaa moog waa kër sëñ Tuubaa ñoo koy bokk da ko daan séddale sax sana wiyan par at daal ne lii mooy saa wàll ñi ci des mooy wàll ñi ci des liñ koy jox nag di ko di ko ko sujjóotale ko di ko ko siyaaree mu koy dugal ci poosam bi loolu lañ daan dundale nun ñëpp kon kooku bu Touba doon projet man nañ ne mooy mu mawwil bi mooy le grand financier maanaam ki ki ëpp lu joxe moom lañ ko mën a tuddee ndax lim daan bay bari na lool te lépp daf ko daan def ci dëkk bi moo tax bu kenn defee ne suñu daan nekk xalifa rek tàmmal def ci dëkk bi loolu njuum te lu rëy a rëy ci ñëpp la benn bi ci des Touba jaral ko lu nekk ndax li fi sëriñ bi nekk waaw ginnaaw moom sëriñ bi léppam heureusement sëriñ bi léppam mi ngi ci dëkk bi moo tax mu defoon Touba muy léppam bi mu tàmbalee lotissé defe naa ko xaman fi Touba yeman bi taxdiit ak lim ci dolli ak système bi mu ko ci dollee da nga naan kii ndax daa demoon Canada mbaa mu demoon Amérique jàngi ni ñuy dundale ab dëkk ndax lan taamir huwa anshaakum min al ardi fii fiha yàlla moo leen sos ci suuf pour ngeen développé ko ok kan mooy dem ci ay tool di ko développé bàyyi dëkk ba muy fanaan ak yendu hada min al xabaawa xabaawa yaakaar naa loolu gàtt xel la walla xamaaqa sax muy ñàkk xel waraloon na bi muy lotissé engagement bi mu jëloon ci lotissement bi ci ay ay ay finance yu rëy di ci joxe lu dul jeex bi mu noppee ni mu sancaloo nit ñi moo gën a yéeme mm-hmm. nit boo ko joxee terrain niil mm-hmm. nekko ko moom ak nit ñi ni ñu bëggee moomeel ñeenti piquet lañ fay def peinture ko def ci seen numéro téléphone dem seen yoon ñibbi mm-hmm. loolu du ab dëkk da wax naan ku indi say bagage na ngeen ko jox ok indi ay bagage sa moom kuy dëkk na te it bagage yi daf ko daan ràññatle waxul ko am di sab saak ak euh, sa danaan la ko indi ab fu ñuy fanaan ak cin lu ñuy toggee ak soxna su koy togg xoolal ma boobu technique comme Sëñ Saaliw daa mel ni moom fi mu fi mu toll moo rawagoon mbooleem ku amum xelum doomu aadama Sëñ Saaliw la gën a moos boo andee sa soxna andi sa doom andi sa say cin sart la woon ci ci ci ñu doon joxe kër yi ak lal bi ngay tëdd waaye sëñ bi kooku kooku dëkk la moo waral moom fi mu tàmbalee woon bi muy joxee luñ ci violé wul rek dafa nekkoon en norme loolu lu rëy rëy la ci dundal Touba ci ak xilaafaam lañ gisee ñu baree bari tuxu tuxu gu simple nit ki boo ko ne yaa moom fii mu dem wacc ko fa dem di bay du ko defar bu ëllëgee mu seer mu jaay ko waxaale wuñ ko kon nag lim njëkk a defal Touba mooy wutal ko ñu ko dëkkee ginnaaw bu ko lotissé joxe ko ba ca des prochain boobu ngeen déggoon muy tali yi dafa ne nañ nañ njëkke tali yi ci ci àllaar si ba waa àllaar si di mën a ñëw ci dëkk bi mu ne àllaar mooy banlieue ci olof léeg-léeg nga wax baat bu xaw a luxa mu ne waa àllaar si leen wutal ay tali bañ mën a bokk si ci dëkk bi su ko defee la des ci xaalis bi ñu door ko wërale nag ci biir dëkk bi xoolal ma ci àll bi fii associé woo ko dëkk bi mu développement mu ne woon nag nañ tàmbalee tali yi ci àllaar si ba àll bi mën a dugg si ci dëkk bi su ko defee la des ci tali yi nag ñu feesale ko dëkk bi kooku doone aalimun almaani doone aalimun amérique yu doone aalimun kanadi da nga naan kii daal rabbaani yi la ku yàlla andi la loolu bokkoon ci li daan def daana waxit ne ndox mi nit lim munta ñàkk ci bu xëyee mooy am ndox moo waroon gis nga fu mu lotissé fu ne installation cent vingt yi soixante trois bi jóge ca trente bi sotti ci digg ci biir kër gi loolu loolu bokk na ci liy dundal ab dëkk xattaa ba ci gis nga tubaab bi sax li ñu ñàkk-ñàkk euh, euh, solo li ñu njëkk def mooy ay tali mhm. akum ndox ak i ak ak i piquet mhm. soo ko ba kër gi day daal di am valeur mhm. soo koy jënd yaa ko moom nga defar ko soo ko moomee mu xiirtal la ci nga mën koo defar yooyu yëpp technique boobu suñu saali am na ko ba noppi te moom bu toogee da nga naan jëmm ji nag wax dëgg yàlla nan la mën a xalaati lii bu nekkoon sax koo xam ne dafa niroog loola <laughs> waaw loolu man kiimaane la koo xam ne bu toogee yow bu ñu buñ la ko desee dessiné woon nga seet lim lim yor lépp ci luy niroog ay valeur bu dem mukk vingt cinq mille te saa yu xelam mi xellee xeli ay milliards loolu moo la war a jaaxal sëñ bi ndax loolu li ma wax noonu tey ku ko ku doon wane ki ko def la ca doon tane mooy ñu wan la koo xam ne day nekk ci siis boo xam ne dañ koo xoob yore yëre yu garaaw ñi ci wetam dañu ay intellectuels yoo xam ne dañuy dem ak dikk nga gis ko mu yore ay ay ordinateur sax lu bon bon di bind ak maas waaye saa yu fastee loxoom yi jëf loo xelam mi jëf-jëfi état loolu moo gën a yéemi ci sëriñ bi loolu nag mooy xormay zahir ji mhm. ndax il faut nga wax ne mhm. pour mu nekk kaamil am mhm. sumuliya li koy war ci dëkk bi da koo def en tànk sëriñ Serigne Saliou mu noppee nag yi dëkk bi benn borom xam-xam daf ne woon beneen moroomam sa tànk yi ngay ding-dingee ci kaw suuf si sa ndaal bopp li nara nekk ëllëg bay boo sa tànk yooyu nga koy dox ndànk wax wax ju am solo fi lay bëgg a suul boo ëllëgee sa ndaal bopp fay tëdd maanaam nit ki bu ñu ko suulee moom ko ne xam ne na suufa koy kawe suuf soosu ñu lay bëgg suul kon waaye war faa nekk di dingi ndigee ka cëpp-cëppee ka cëtang cëtangi parce que boo ëllëgee si biir foofu ngay cëpp-cëppee ka cëtang cëtangee ki lay suul mu ne ko doom mu ne mu ne ko sa tànk yi ngay ding dingee ak cëpp-cëppee ka cëtang cëtangi ci suuf soo xam ne bu ëllëgee si sa ndaal bopp lay nekk ci suufam mu ne mu ne ko loolu du yar loolu la ko waxoon kooko du woon a murit waaye wax na waxi nit mm-hmm. moo waraloon Cheikh Saliou Mbacké jox dëkk bi xorma mm-hmm. daana wax naan sax sa law yi ngeen fii def day tamit yu neexul yàlla mm-hmm. ci man lay feeñaat xool ma lii parce que da koy yenu moom dafa liggéey sëñ Tuubaa ci liggéey ko ci baatin bu bon bon yi baree ba bari day wàcc ci aw yaramam pour mu tolore ko loolu ma ne ko wax ñëpp waaye lu wér la daana wax naan mooy yi ñu mooy ci biir dëkk bi dama ko yëg sama yaram wi kon moom ndeke yaram bi dafa communiquer ak dëkk bi benn communication day am benn da am benn rabita dafa am benn alaqa relation boo xam ne ndekete moom mi ngi fonctionner dëkk bi te waa dëkk ko <coughs> loolu bokk na ci lim daan wattandiku <coughs> <coughs> ormay dëkk bi yeggoon na ci ñi daan dugg ci otoom mm-hmm. su oto bi déparé saa yu toll ak jumaa ji nii lay def mm, mbaxana mi man mm-hmm. teg naa ci bët te yaakaar naa ne bari ci ñi daan dugg ci otoom teg nañ ci bëtam mm-hmm. ak dàll yi dana te ci biir oto bi la ne dana sumi dàll yi sumi mbaxana mi ba ba muy jàll foofu daana waxit ne mhm. yéen ñii jëm kër sañu ëddu mhm. mbaa ngeen di marché occasion di leen jaar ci soow jumaa ji te watandi ko penku bi bokk yi mhm. yaakaar naa li dong doy na ci ne sëñ Saliou ko bëgg Touba la ku ko defar la waaye doy na sëkk ci ne ku fonk Touba la ku ko gëm la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Makhtar tabaarakallah tabaarakallah waxtaan wi am na solo lool liñ ci doon seenu lépp ba taamu la tabaarakallah gis nañ ko ci tabaarakallah tabaarakallah liñ bëggoon nga waxal ñu ko tamit ci sëriñ bi mhm. waxal nga ñu ko ñu ñaan suñu borom may ñu xel muñ ko déggee jëfe ko jariñu ko jariñoo ko te jariñe sant nañ la bu baax ñu bàyyi la sa xam-xam <coughs> la sa sago yàggal sa taxawaay amiin Abibu mhm. ñu dellu siwaat di la siyaar bu baax déglu nga waxtaan wi nga xamante ni sëñ Maxtaar waxtaan na ko ci sëriñ Saliou Mbacke xam naa ne yow moom jàngat ko dina la yomb lool. Mm-hmm. incha mm-hmm. ñu bëggan ci tënk. boo mm-hmm. daan jàngat waxtaanu sëñ Maxtaar bi. yow loo ci xellee loo xamante ne nii mbokki jullit ñi danañ ko mën a jëriñoo. ak tamit sëriñ Maxtaar lii mu ñu wax. ci sëriñ Saliou. mu doon sëriñ Saliou moo xamante ne nii sëriñ Saliou mu ñu xam la ñun. ñi fi toog ñëpp yaroo ci moom mhm. ak lenn léeg-léeg tamit sëñ Saliou léeg-léeg ñuy dégg ñun day mel ni moo tax xamuñu ko woon ñun mhm. te sëñ Matar moom ki mu ñu wax mooy sëñ Saliou mi ñu xam waaye jamono nag léeg-léeg da dégg sëñ Saliou moo xam ne day mel ni mel ni sëñ Saliou Mbacke la mi ñuy wax mhm. moo xamul woon ci tënk loolu ñu doon baaxee ci jàngatal ñu loolu ak ubbi ñu tamit ci loolu bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maolana muhammadin almakin <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wattamkin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi noo ngi leen di nuyu te leen siyaare <clears throat> di fab nuyoo bi di ko dugal ci nuyoo bi nga limoon Serigne Cheikh bi ngay tàmbali yaa tàmbali jataay bi tàmbalee ko ca mm, kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadou Mountakha jaar ci jëwri nii kër gi di Serigne Cheikh Salihu nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp dugal naa sama nuyoo bi ci biir nuyoo boobu ngir gàttal euh, di ziare ñëpp xam naa waxtaanu seen waxtaan Kébé dafa dafa yaatu te làmb lu bare bare bari te feeñal nag sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax nga xam ne man man boo ko bëggee boo ko bëggee jàngat fenn rek laa koy tënk ndax moom kan mooy sëriñ Saliou la doon jéem a wone loolu nag kenn du ko man waaye dañuy misaal rek kan mooy sëriñ Saliou ak nan la toll mm, la loolu la ñuy jéem a misaal di ko jéem a woon nit ñi ma nattu ko man ci benn nattuwaay képp ne arab dafa wax ni sëriñ bi bind na ko ci ndax sax bi xaddiril kat taktasibu al maali maanaam nit ki kemtalaayal coonoom noon la ay koowe ay darajaam toll waaw foofu ba nag boo andee Serigne Saliou andi koo xam ni ci fukki atam ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent la tàmbalee taqoo taqoo ki gone te la ko jiitu ci daara la ne la ko jiitu ci daara la ne ba ci biir daara jooju ba bi mu daa bi mu ko daataan jeexal liggéey bii muy wax ni te liggéey ko mbaakol te ñu def ko ci jumaa ji loolu boobu sëncagul daara boobu mbaakoon la ci ba ci ba muy nekk ci daara nga xam ni kon ñu ngi woon ci coono boobu ba 18 ba mu egg ci ay 18 19 ans ndax xam naa ni ñu koy waxee bu fekkee noonu la wére 15 euh, la feeñ 34 33 34 la sënci got 33 mooy waay taay waay 34 noonu ci làmmiñam laa ko déggee moom mooy mooy sënci ba xam nga 15 34 nag loolu 19 ans la nga nekk ci coono ba am fukki at ak juróom-ñeent képp nga xam ne weesoo goog ndaw sañc daara sanc daara sancandoo koog ñoo xam ne ñoo mag ndax ba muy sanc daara ji sancandoowu koog ay gone ay mag la ko sancaane sëñ Moxtaar Jaw euh, sëñ Abdou Salam Ba euh, ak ak ak ak ak classe nga xam ne am na si ñooñu ñoo xam ne ñoo ko mag booba ñu jaras di kalaasam ci ci saayir gone yo soog a tàmbalee ñëw xanaa booba la tàmbali coono ba te tàmbalee coono ci jamono boobu taqoo tàggoowu fekki gone tàggoowu fekki mbooloo amul beneen liggéey tàggawu ko fi gane tàggawu ko fi mbooloo di liggéey di joxe ba 2007 kooku coonoom ku ko mën a natt ana kan moo xam ci kaw suuf ku daaj lu toll noonu ci coono boo bëggee xool sa net sëriñ Saliou net ko foofu rek comme bi xadiral kat di taxsimul maali te moom dëndam bépp coono yooyu la coono boo xamante ni bi dafa feeñ ci réew mi eh, ndax li nga xam ne moom la defar ci kaw suuf jamono yi ñu toll ku leen woowoon ne ne ne ne ku mas a jaar waxuma ñu ne ci biir suuf waaye ñu ne ci kaw suuf rek ci fi mu ne ku ne woon ñu mas a jaar ci daara Serigne Saliou tërbiye wu fa te may leen ay possibilité ñu am jot gi nga ni ñëpp nañu daje si Touba te dana mel ni màggal Touba su foo dem kooku nag kon coonoom ku xam kan moo mas a daj jooju jooju coono boobu boobu coono ci kaw suuf amul boo ko xoolee foofu doo am kenn koo koy tëkkalil ndax amul amul ku mas daj lu toll noonu Euh, darajaam boo ko xoolee foofu da nga ci gis lu baree bare ci nii nga xam ni noon la ko euh, sëriñ sëriñ Muxtaar sëriñ Muxtaar tënkee loolu mu wax ni damaa xam yoon wi ndax dama ko dama koo ànd ak borom yoon wi fukki at ak ñaar te ku ko keneen ku ko yor maa ko ma ma noo ko ànd dafa mas a wax ni dama bëgg ngeen xam ni yoon wii ma leen teg làmbatuuma ko ndax kenn gënu maa xam yoon wi noonu la ma ko wax keroog kenn gënu maa xam yoon wi moo tax ma bëgg yoon wii ma leen teg ngeen bañ koo wàcc bañ koo soppi te ki keneen ku ngeen gis muy dox dox yéen wu wuute wii ma leen tegit bu leen ko roy bu leen ci sikkal fekk nag waaye bu leen ko roy ndax kenn xamut kenn amut lu gën a wér lii ma leen wax wax kooku boobu responsabilité ak ak woowu fit ñu ko ñu ko ñu ma kon loolu wane na ni ku ko gën ku ko gën a xam yoon wi amut te man sax damaa jàpp ni maanaam maanaam daf caa boolee waaye ku ma gën xam yoon wi amut man laa noonu laa déggee wax ja koo xam ne gënu laa xam yoon wi amut ndax ay euh, euh, euh, ay ay ay ay ay ay bokkam nangul nañ ko lu baree bare loo xam ne nangul luñ ko kenn ay bokkam nangul nañ ko loo xam ne nanguluñ ko seen bopp ay bokkam fam nañ seeni doom jox ko ay boppam fam nañ seeni doom nga jox ko te bu fekkoon te ni doyu leen ca loola kon yaakaar naa ni te kenn ku nekk ci ñoom mën ngaa yar sa doom mën ngaa yar sa donga waaye dañoo boole seeni dong ak seeni doom amul woon ci daaraam dongo bu jógewul ci kër kilifa sàngam kër kilifa sàngam ñu leen jege ak seen i mbokk ñooñu leen fa foogoon di leen ko jox loolu mooy wane ne lim doon def la lum man la lum xam la kon kooku ñaari anam yooyu rek boo ko ci xoolee da nga gis ne maanaam doo am kenn koo koy tëkkaleel ci yoon waaw kon moom moom moom moom moom jëmm la joo xam ni wax dëgg yàlla ab defaram ci nit ni ko sëriñ Maxtaar waxe bu noppee da ci da da da day sotti ndax dégg naa ñu wax ni euh, c'est te loolu mel na ni wér na sëriñ Soay bu nee na ku ma noppi ci yow da nga mën jëw da mat ilimaan waaye sëriñ Saliou ku ma noppi ci dana mat jëwrin mat ilimaan loolu ci baat waati kilifa yu wér laa ko laa te loolu fi li ko firndeel mooy fam fam naay dongam téeméer ak nangam eh, fam naay dongam yëpp yët ko sëñ ndax booba moom day jàngale alquran day jàngale alquran di yare di tërbiya di yare di tërbiya waaye ci biir këram gi na demul fenn waaw ba yëfi fab ca lu bari jox ko sëriñ Saliou ñooñee man mii leen Serigne Saliou doxoon ma ma ànd ak ma ànd ñoom dem got muy ñoo xam ni ba ma leen nattoo ñi ci gën a bari ñoom ma gën a mokkal alxuraan ñoom ñëpp mokkal gu rafet lañu moom nga xam ne ki doo xam ne ñii li ñu bëgg ci ñoom lu mu doon ndax alxuraan jur rafet moo nekkoon ci ñoom ba noppi jàng jaata tàmbale tàmbale njàngum xam-xam xam ni ñu bari sore guñ ca waaye tàmbale nañ ca waaye wattu gu rafet lañ doon wattu nga xam ni sama coono bari wu ca lu ma leen jàngal xam-xam waaye ñoom ña ca mokkaloon ñoo doon ñoo doon ñoo ñoo ñoo doon jàngal ñuy jàng ñuy jàng alxuraan ñuy jàng alxuraan muy nit ñu am ñu am qualité ñu baax ñu ñoo xam ni mel na ni sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh bi am na lu mu bëgg si ñoom ndax def na ci ñoom loo xam ne bu leen bàyyi woon ñu dem doy na doy na sëkk kon euh, kooku sëriñ Cheikh bi mu ne su koo mu ne su koo jàngat jàngat bu bu saa soo ko jàngatee day mel ne da nga da nga da nga da nga da nga waxee noo xam ni day mel ne du du du kii daal du du du du am solo. waaye kenn ku nekk rek sa xel ngay jëfandikoo kenn ku nekk ngay jëfandikoo ko ko ku daj lim daj cib coona loolu mu wax ne liggéey ba ko dalee def di joxe euh, boobu doonagul xalifa alaaji may si mu kees xam nga ko mooma nett bu jamono bi sëñ bii nekk got a xabaan moo ko daan peeseel gerte ga nee na ma euh, cinquante nangam fàtte naa at ma eggul soixante cinquante nangam na peese naa xabaan junniy bëri ko junniy ana kan mooy bay junniy bëri ko boobu ci réew mi te booba sëñ Modou Moustapha jógee na fi euh, waaye sa booba sëñ Fallou fi ne booba sëñ Fallou fi ne ak doomi sëñ Tuubaa yëpp ñëpp ak ak ak seex yu mag yi nga xam ni ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak yu jeex nekk ci àll bi liggéey waaye xabaan nee na ma peese naa fa junniy bëriwul xabaan képp te booba got am na booba njàppandal am na booba daal yi amee gut waaye bëriwul got am na njàppandal am na got bi ko sancee mbayum dër moo fa ëppoon solo sëñ Mat Sall mi ngi tey nga xam ne mi ngi dund tey toll ci tëdd ci bilal yàlla na ko yàlla yëkkati ci jàmm moo ma nettali ne buñ ñu ma saan bay ba bu ñu ba am lu ñor dañ koy récolter lépp def ko ci ay dàmb ko def ko ay collier nu nu nu nu nu yóbbu nu ànd yóbbu moom bokk na ci ñu ko daan andi Touba andi dem dem Thiès wala xombal teg ko ci saxaar teg ko ci saxaar gi andi ko Touba boobu saxaar gi dañ koy dañ koy sëf teg ko saxaar gi andi ko Touba bu ñëwee séddale ko njabootu Sëñ Touba gi fi ne nga xam ne nee na ma am na bëkk néegub sëriñ Fallou boo xam ne dañu ma dañu ma woon damaa damaa bëgg ngeen dimbale ma nga dimbale ma boobay andeeti di indi lu yem bu jeexee indiwaat ndax li nga fi andi day bari te sëñ Fallou du nangu mu génn te it mënuñu koo saytu day yàqu te bu yàqee mu yedd nu kon nag ñu dimbalee di andi lu yem loo xam ni bu bu jeexee nga mën a andiwaat suñu misaal la ma ko nettali te booba kër doomi Sëñ Tuubaa yëpp ba ci kër am sëtu jaxate la koy te loolu mbayum gor rek la mbayum mbayum norma mbayum norma mbayum norma mbay mbayum nawet ba kon waaw mooy mooy mbayum noor waaw mooy mbayum neer mi mbayum légume mi noonu la ko daan séddalee mbayum nawet mi noonu mm, eh, eh, eh, wax nañu ma ni Serigne Saliou Touré wax na ma ne jamono ya Serigne Fallou santaane toogee te te sas sëriñ sas kilifa yi kenn ko ne mu sas la dara booba ñaar fukki junni fanweeri junni téeméeri junni kilifa lañ ko daan sas nee na Serigne Saliou ñaari million la ko Serigne Fallou sa woon Serigne Saliou Serigne Saliou Touré ma ko wax nee na ñaari million ñaari million ya da koo takk teg moom ba noppi daa di daa daa di soog a yëg nee na gaal gaal la amoon goo xam ne gi dañ ko tëj ak ñaari xomb def ko lu mel ne condamné boobu boobu mi ngi mbuur loolu yëgal ko nit ñi nag lu waay indi ñu def ko ca lu waay indi ñu def ko ca lu waay indi ñu def ko ca nee na gaal googee dañ ko caa def ba di ay pochette ak kayit këyit ba di ko ba di ko ruuxaat ak bant ci gaal gu mag te bokk nee na moom bokk na ci ñi ko yóbbu Sëñ Fall mu fam ñaari yi jox leen ak gaal gi ak caabi yi nga ne caabi yi sëñ Fallou ko ubbi moom moom ubbiwul gaal nga xamul lu ca ta te ñoom na leen ni li ci nekk ëpp na ñaari yoon ñaar sas yi nee na moom bokk na ci ñi ko yóbbu yët ko sëriñ Fallou sëriñ Fallou nee ba mu egg si ba mu eggee moo ko ubbi ak nag yeneen yoo xam ne duñu ñëw duñu mën a nettali fi kon sëriñ Saliou ku ko ku ko bëgg a xam xam ni al insanul kaamil bi nga wax nit ku mat koo xamante ni kii dara du yitteem lu may defar nit ñi dara du yitteem lu may defar àdduna dara du yitteem lu may jàmm nit ñi am jàmm te am te te doon ay nit yi qualité bañ doon nit yi wayaa wayaa waaye nit yi qualité la la la bëggoon dafa bëggoon nit ku qualité koo xam ne kii la war a nekk ci moom lépp da ciy ne ba noppi mu nite mu nite bañ a doon daanu kat bañ a doon mm, taxawaalu kat moom li mu li mu li muy tërbiyaa kër yëpp kuy niru sax ab daanu kat sëqal bopp sagal sali sagar na laxasaayu te liggéey woo yooyu yëpp da ko daan tere wàllu àdduna gi takkub lam takki weer takkub jaaro chemise su col sax da ko daan tere waxuma la da dama ko jëlale nga xam ne day bëgg doo jëm doo bokk ca dof ya doo bokk ci waa adduna da ngay nii comme ni nga wax ni sànq da da nga da ngay équilibré nekk ci diggante bi nekk ci diggante bi ku mu yar noonu mel sax boo ci jógee doo tàmm sax dakk takk dara ndax dara musu musu koo nangu bu fekkee ne nag jóge nga ci ba nekk sa bopp waxu ko waaye ki nekk ci daara yi tërbiyewu ki nekk ci daara ji tërbiyewu bëgg na su jógee ca tool ya ba ba ñëw na sangu te niroog nit ñi nga xam ne boo gisee nit rek ngay gis doo gis daanu kat doo gis ku war ca tool ya laa jóge doo gis ku ku ku ku nitu àdduna koo xam ne ki lay civilisé di diwoo ko nangam ak nangam waaw yooyu yëpp doo ko gis kooku ñu noonu la nit nit ku mat nit ku nite du dof du nitu du àdduna nekk ci diggante bi moo tax nitam foo ko gis boo boo li nga wax nii sànq ci moom ci jëmmam Alaaji May Sekk daf ma daan wax xam nga ku yow la woon ab géwélu Kajoor la woon du yàgg ci réew mi daf ma daan eh, ay sa ji ku ko ku ko xoolee këmmam ji noon la gaa waxee ku ko kam këmmam ji da da da la jógee noonu la jëmm jëme na ñi muy noonu la mel koo ci gis da da nga da da doo doo jàpp kii ku ku ku tekki dara wala ko xam dara waaye nag làmbal boo làmbee rek daj waaw c'est c'est fi may daaneel Sëriñ Sohaybu radwanullahi alayhi mas naa wax doomam boo xam ne dafa jógee ci kër sëñ bi siyaare si woon ba mu ñëwee mu ko foo demoon mu ne ko kër Serigne Saliou siyaara ji nee mu di ci waxtaan ak moom ne ko ah ne ko sa waa jooju da xamu leen ko ngóor si Juuf yor réew mi de moo ko ko dàq yor moo ko te boo ko xoolee doo jàpp ne doo doo doo doo doo jàpp ne da jàpp ne nitu yàlla képp a ngi nitu yàlla te fekk adduna moo ko gën a xam ku dul moom su waxtaanee soxna bi mu xam na ci lu bari su ngeen waxtaanee fànn gó fànn gone nag ku muy waxtaanal ku ne nag la nga gën a xam ci lay waxtaan yow xanaa mu jàpp laa labiré wala nga nga wala nga dugg ci da anam dana ca dugg yow ba nga xam ni lim ci xam yow xamoo ko ci Seexaan nee na ma damay wax ak moom da ci ci benn mbir moo xam ne moom la ko doon liggéey doo Seexaan nee na ma ni ko ma ma ma ma ma am lu may nas nasal naan ko naan ko xam naam nangam ak nangam sax xam naa am na ci loo xam ne sax doo ko doo ko xam nee na dafa ree nee ma sàllaaw li ma ci xam de ba ma la ko waxoon da ngay defee du ma nit noonu noonu noonu noonu la meloon kooku mooy koo xam ne tey ba fii nu toll nag mënees na koo liggéeyal ba fii ñu toll nag ni ñu koy liggéeyale mooy nu yar gone yi te defar leen loolu dong doon yitteem képp ku yar sa gone te liggéey te te te defar ko jàngal ka alxuraan yi yaa ngi liggéeyal Serigne Saliou boo yëgee ak ah? ma yar man ngaa sa njaboot daa jeex ma loolu la bëggoon la bëggoon ci nit ñi nañ ko nañ ko liggéeyale yar gone yi ak defar leen jàppale daara yi jàngale alxuraan jàngale xam-xam nit ñi ñu doon ay nit ñu baax nit ñu sell bañ a doon dof bañ a doon niti àdduna lépp lu ñuy dugg digg ci ak cellte dugg ci ak cellte sëñ bi bañul woon njàngum tubaab bañul woon bañul woon politique ndax xam na ne yooyu mook aad yooyu mook àdduna ànd dafa am nu mu ko bëggee woon noo xam ne ni ñi dawun ko doxee noonu loo taxoon mu yàbbi ko mu mel ne mu da daw ca dugg waaye loo ci loo ci xam ni dugg nga ca ta jaaree ko ci yoon wi nga ko war a jaaree ndax sëñ lu ne da caa wax sëñ daa bawul dara politique sëñ wax na ci njàng mu mu doon mu ne sariya wax wax na ci salaa salaam daan wax ku déggul làng ñu limaale ca ñu limaale la ca ca nit ñooña waaye buñ lene boo boo boo buñ boo déggee làng aw nit ñu boole la seen bopp ñooñu nit da nga mën ci ñoom lu bari loo ci bëgg a def da ko mën kon dégg làng aw nit baax na waaye nag gardeel sa sa sa la la sa sa sa dignité ak la nga xam ak qualité bi xam ne moom nga doon moom ngay garder bu ko defee jaxasoo ko jaxasoo ko ak ñoom bu yàggee da nga ciy soppi lu bari bari bari kon moom sëriñ Saliou noonu la meloon politique boo ciy dugg boo ci doon dugg boo ciy dugg nga duggee ci eh, ay jikko qualité yu baax mu makaarimul axlaaq doo fen doo sàcc doo wor doo def def nanga nanga bi yii nga xam ni moom lañ jàpp ne mooy politique politique gu Sénégal moo mel noonu waaye politique moom siyaasa mépp mbir mu mu doon mu ne am na ko mépp mbir mu mu doon mu ne am na siyaasa waaye nag fen ak kàcceeg nangam ki nangam ak sàcceeg wor ak yooyu yooyu politique du Sénégal moo mel noonu dafa salté waaye bu fekkee dugg nga ci qualité bi bi ñu def ci yow fii mu ne nii suñu Moxtaar Kebe mii ko defoon président de la république kon réew mi tege ci yoon ndax ni mu mel dara àdduna mënu koo soppi mënu koo dindi soxna bi mii ko defoon ministre ni mu mel àdduna mënu koo soppi ñi mu defar ñëpp noonu lañ mel koo ci defoon koo ci koo ci degoon ci poste doo ci am lana xari ndax àdduna du la du ko soppi noonu nag la bëggoon ñu mel ni ba nga xamee ni meluñu ne nag mu ca waaw loolu rek mooy mooy wax ci kon nit a ko nit a nga koo xam ni ku ko xool te rayu ko te déglu ko te nangoo déglu ñi nga xam ni ñoom la ñoo ñoo jaar ci loxoom da nga da nga da nga baax danga tege ci aw yoon waaye daal ku ko bëgg a liggéeyal li ma bëgg wax mooy ko bëgg a liggéeyal ci jamono jii nu toll mooy jàngalal sa doom yi diine yar leen yarub diine defar leen képp ku ko def yaa ngi koy liggéeyal dong doon yitteem asalaamaaleykum wa rahmatulah. tabaarakallah tabaarakallah <laughs> tabaarakallah sëñ Ayoub jërëjëf. tabaarakallah ah, tënk bi de moom moom na solo lool. matale na lépp. macha allah waaw matale na bu baax a baax tamit. jaajee na bu baax a baax jërëjëf. kon ne xanaa ñu njëkkante ak waxtu wi. Mm-hmm. waxtaan wi moom li sëñ Habib wax rek sëñ Salim moom kenn mënu koo jàngat ci ay weer mm-hmm. wala ay at. Mm-hmm. waxumala nag benn bés wala wenn waxtu. sëñ Abdou Ndiaye kon xanaa yow mi nga xamante nii yaa fi teew. Mm-hmm. mën nañ ne teewal fi dongay tarbiya yëpp ndax jëwriñ nga yoo xamante ne tamit jëwriñ ju ànd ak ndigal ndax sëriñ Cheikh mi nga xamante ne nii moo fi nekkal sëriñ Saliou dañu koy ñaanal fan gudd wu ànd ak wér gu yaram mm-hmm. ak mbégte moo xamante ne nii taalibe yëpp am nañ ko ci moom mm-hmm. ndax wutu sëñ Saliou ni ko sëñ Maxtaar waxee ak sëñ Habibou xam nañ ne yombul ndax koo xamante ne nii fukki junni donga ak ñaar nga fi bàyyi ñooñu ku leen donn boole kook say dongay jàmbaar dëgg dëgg la moo mën a yenu loolu mm-hmm. Mm-hmm. waaye yemul nag ci doonu leen rek waaye dafa dem nag moom bay yokk mm-hmm. ndax sëñ Cheikh boo demee tey xel koom daara yi fa sëñ Saliou bàyyi woon ma fay tabax yeneen daara yu yees yoo xamante ne nii day fees dell ak mbooloo muy def ci ñoom la sëriñ Saliou Mbacke daan def ci ñoom kon bokk ko kenn ku nekk xam na ne maanaam waagal nañ ko ndax sëñ Saliou sama way jur mm-hmm. doy na waajtaay mm-hmm. waaye nag liggéey na liggéeyu boppam mm-hmm. sonnal na sëriñ bi ñaqal na sëriñ bi ba am ngërëmal sëñ bi bi sëñ bi ñibbee tamit kenn ku ne xam na ne yoon wa sëñ bi joxeñoon rek ca la jaar mhm. taalibe yëpp suñu xel dal na ci moom mhm. ñun ñëpp ñu ngi maasal di ko ah, ñu ngi maasal di ko ñaanal mhm. suñu borom yàggal ko fi tam mottali yéenam sëñ Abdou Ndiaye ci tënk yéen ñi nga xamante ne nii kon man nag mag ñi muy sëñ Abdou Diop mi nga xamante ne nii ñoom sëriñ bi ñoom la joxoon daaray jàppandal ñuy yar di jàngale euh, daaray got sëñ Maxtaar mi nga xam ne moo nekk daaray njàppanal di yar di jàngale mm-hmm. ñoom la leen waran day def nañ ko ci yéen yéen ñi nga xamante ne liggéey bi egsi na ci yéen fi mu nekk nii ban jàngat ngeen am ci tolluwaay bi nga xamante ne daara gi toll na ci bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu eh, te di leen siyaar tey feeñal sunu mbégte bu rëy rëy nag eh, ci jataay bi nga xam ne teewe nañ ko Euh, lu baax daa jafe day mel ni boo ko bëggee rek seytaane dina la jéem a gàllankoor lu man ngir nga bañ koo fekke euh, di sant sëñ Moustapha Diop mii nga xam ne moo ñu ko yëgal euh, ma bëggoon a ñëw sama oto amee gàllankoor ma wax ko ko mu ne ma téema yónnee bokk kon loo noo dafay pexe ba ñëw mu ne ko comme li ñuy def ñun ñëpp ko bokk kañ bàyyi rek ma jéem ndax li nga ciy wut lañ ciy wut ñu koy sant bu baax ak jéem gi muy jéem ci saxal turaas bi ñuy sëñ bi bàyyee ak nu ñuy def ba jot lee ko ñu ci des loolu sunu warugar la ñun ñii sëñ bi yar beroog ñun def ci ñun ay mbir dem na fi mu war a àggaat mi ngi aju sunu farlu ak sunu xam ak sunu dogu yonente bi alayhi salaatu wasalaam daam ñu ñu bokkal ñu koy wax aali rasul am ñu ko jamonoonteel te gëm ko ñu koy wax sahabatu rasul mu am lu mu def ci ñoom bi fi jógee ku ne rakkaaju ku ne seet fa la fa la fa la gën a jafe gën a dëgër nga dëgmal ko not sa bakkan fexe ba lam defoon ci ñoom nga def ko ci ñoom moo tax ñu ngi leen di siyaar sëriñ Fahibou ñu ngi lay siyaar sëriñ Mokhtar sëriñ Abibou tey jéggulu jataay bi ma ànd ak yéen toog ci kaw di sëriñ bi ni bul toog ak man ak akbara ak wala boog man yakunu ahshama ñaar yëpp nag mi ngi ci yéen ndax kii daa jige lool waxuma la mageel geeg kilifteef gi mu nekkoon ci ñun waaye sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ko ko xam wax dëgg yàlla ko gis Abdou Ndiaye toog ak moom ci jataay dina la jaaxal sëriñ Chouaïbou bu mii tamit kiimaan la xam nga sëriñ bi ñu xamut dañuy jàpp ne daa wuti bëkk néeg waaye jëliwutub jàmbor ngir teg ko ci këram kum jër rek am na cosaan lu ko waral sëñ sëñ tuba sëñ sariwu sëñ tuba la bëgg bëggeel googu mu bëggoon moo tax euh, man de man de ba may ba may ba may nekk ci daara ji ay ay soixante-dix-huit soixante-dix-neuf ña ma gisoon muy ànd ak ñoom ñëpp am na lu leen lëkkale woon ak moom ñoom sañ Mbàkke faa jama anamooti sëñ Modou Mamoun Niang mii daan na ko lëng ñu bari la daan àndal ci kilifa yooyu moo tax moom mii li ko jigee la woon ak sëriñ bi duy pexeem du dara waaye sëriñ bi xam na la muy def sëñ Moxtaar si euh, moom moom kii man dëgg la ndax xam nga li li borom maqaama wax ni ñaar yi ayib la ci wax mooy mooy xam loo mënta leeral wala xam loo xam ne sa làmmiñ am na jafe-jafe ci leeral ko tibyaan ak bayaan leeru xol ak leeral ko ci làmmiñ ñaar yëpp daje daje na ci moom ñu ngi sant suñu kilifa yii nag nga xam ne ñu ngi fi tudd nga seen tur waaye rafetlu nañ seenu teewaat sëñ sëñ sëñ Amsatou Sylla mi ak sëñ Minikat waaye sëriñ sëriñ sëriñ Abibu damaa gis addis boo xam ne Abu moo ko soxo moo ko soloo lim ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam dani man kazaba alayya mutaamidan koo xam ne fenal na ma maanaam waxal nga ma lu ma waxut wala nga seere ci jataay boo xam ne nee nga am na ci man te amut falyata ba wa maqaduhu min an naar faa googu nag yéen ñiy jàngale nahwu xam ngeen ne fasihatul kalaam la mooy bu lii amee rek boo yeboo nga xam ne daal daa ciy daal di topp mooy lii daa xew nag daa xew te te ñun dañoo jige lool koo xam ne danga nga ne nekkoon nga ci daara ji suñ bee ma yar boo taxawee wax lu juuyoog li am rek musiba dëgg la loolu dafa rëy lool wa man aslam man iftara ala allahi kasiban alxuraan dañu ku gën a ku gën a mën a duur gën a mën a kàcc kii waxal yàlla lu mu waxut waxal yàlla lu waxut mooy ndax yàlla du du du du du arab du jërmi yan waaye li ñu jubla wax rek mooy yonent bi yi nga xam ne moom la teg suñ kanam ni nit a ngi nii goo xam ne ci yéen laa ko tànnal lu mu wax maa ko wax lu mu tere maa ko tere kooku ku ni moo ne nangam lu amut kooku amut lu mën a dox digganteem ak sawara dafa am loo xam nag dama ko bind da waxi sëñ Saliou la yoo xam ne dama dama yaakaar danañu itteel ñun ñëpp dangaa wax wax ju wax ju wax ju doy waar ci ci ci kii ndax dane am na ci barab yi barab yu dongo yi ñoo xam ne dañ fa daan nekk duñ jàng duñ def dara waaye da ngay jékki-jékki rek mujj gis leen ñu baax moom moom wax na ko ci biir xam maanaam waxam jëpp dëgg la waaye nag nit booy wax da ngay da ngay cité li nga ci mën a wax rek xam nga sëñ Saliou daa am bis boo xam ne da doon yeewi mbooloo moo baree bari lam ca waxoon nag daa doon wax ju itteel joo xam ne dañ koy wax bañ xam mbir yi ni muy demee ak ni muy demee ndax dani sëriñ Saliou moom moo nettali ni sëñ Touba dafa mosa woo sëñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou biñ ñëwee bay dellu mën leen dama dama bëgg ngeen liggéeyal ma ci nit ñi ni leen bu ngeen demee Touba da ngeen sanc ay daara te liggéey liggéey te ngeen liggéeyal ma ci nit ñi ni yéen ñi ma jur li ma leen liggéeyloo mooy ci mooy ci nit ñi kon digal na leen san sanc daara digal na ci nett li bi tamit ni moo leen liggéeyloo ci nit ñi moo tax comme sëriñ bi ni nga waxee ne daa teel a samp daara ak li nga xam ne ku wax daara sa xel nekk ci moom wax dëgg yàlla loolu asli moom da koo nekk li ci bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy yeewee kon daa mel ni nit nit nit pexe bu mu nit mën a am jàpp naa ni mënoo am pexe bu gën a rëy teg ko ci yoon yoon wi nga wax yoon wu leer la nit bu jàngee yaru nangoo liggéey amuk ràññee fa mu dem a jaxasoog ñooñu jàpp naa ko de damaa mos ak sëriñ bi mu ne ma yii moom lu waaye nit gàtt gàttum xel war nga koy bàyyi xel mooy nga xam sa bopp awalan nga xam yow yaay kan xam li nga man xam li nga lot xam li nga mënut koy jëflanteel tamit nga xam ni mu la jàppe ñaari yu moom boo ko xamee rek dinga am yoon woo mën a dem bu leen nit ki jàppee dof dinga dem bu la jàppee ku di nga mën dem bu la jàppee kàccoor tamit di nga mën a dem parce que yow xam nga sa bopp ba noppi li ci des nag mooy koy jëflanteel rek fexeel ba xam loo mën a doon léegi nag comme sëñ bi war nañu ginnaaw ñii ñu jàngal magal nañ ba ku ne yaa ngi toog fi nga war a toog am na ci ñun ñi yaroon ñoo xam ne ñu ngi tollu ci diggu doole kër gi lépp ñun la war lu ci yàqu ñun ñii ñooy responsabilité bi am na lu ñu war ci sëriñ bi am na lu ñu war ñun suñu bopp am na lu ñu war ci mag ñi yaroon am na ñu ñu war tamit ci ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci roon gi ndax xañ na jaxasoo gi am suñu diggante ak li ci ëpp li ci ëpp du faral di di di di war ci ñun man de sëñ bi maa ngi fàttaliku ni tàng ne sama kaw benn yoon tàng mu metti nag xañ na sëñ Moussa Diop dana ko wax xam nga sahaaba yi liñ liñ liñ tanee woon dañ daan indi nii yonent bi da gërëmoon nañu ci lii waaye boo ma defee nangam bi si itam sëñ bi defoon na ma lii wax dëgg yàlla nag sëñ bi xam nga yéen ñëpp xam ngeen ni meloon mooy mbir yi moo ko yoroon boppam biñ nekkee ndokaa da daan def ku bàyyi daal bàyyi jàng alxuraan sax laay wax xam nga mi ngi dëkkoon boo duggee ci kees kees bu njëkk gi néeg néeg yooyu sëñ Sam mujjoon a dëkk muy ñetti bâtiment yooyu daa dëkkoon ci ci digg bi ak ba féetee ba féetee soowu bu nekkee ci bi ci digg bi booy dugg ci keesu juróom-benn koñ gi daf lay gis bi ñiñ na ko bàyyi nañ jàng alxuraan ñëpp da koy bind te boobu sëñ bi guddi gi day am waxtaan ak yow boo ñëwee nga toll da koy saytu ëllëg ma laajaat la ko léegi-léeg nga yam fi mu laaj la sam njàng lu teemu ndox da koy gëstu yow sa bopp na njëkk yedd waxtaan ak yow ñun ni ko bàyyi nañ jàng alxuraan ñëpp daa bind seeni tur téye bi mu ñëwee di woo par kenn boo ñëwee mu laaj la dañ ne man da ngaa bàyyi jàng alxuraan lu tax nga tàmbalee lay mën la ko ko gàntu la njëkk doo nangu la ci topp noppee da lay woo yeddaat la tegaat la ci yoon bi mu la war a teg li ma jubloo nett mooy sëñ bi dama dañ maa benn fajar ni ma wuyul ma jàpp ni ma daan bësi ni ma ko daan bësi di waxtaan ak moom loolu ma ñëwee sëñ bi nett li ma ta jafe-jafe yu ma def fekk njëkkoon na ak gàmm gum ñëw fii Touba ñuy gàmm mu woo sama benn xarit dal ci kawam xam naa wax na ko ni sëñ Abdou Abdou Abdou Ndiaye moomu am na lu mu def loo xam ne naa ko lijjanti bi mu ñëwee wax ma ko may jàng tàmbalee absenté di xalaat bu ma demee sëñ bi lan laa war a lay ba mu ba ma waaye ma dem ba fajar sëñ bi woo ma ni ma dañ ma ni yow da ngay def nangam nangam nangam ci daara ji ma ma tàmbalee weddi waaye sëñ bi fi muy jaar a kawe dani man de bañ ma ko waxee góoma ko ndax ni nga yaroo ak sa baay ni mu teel a jébbaloo ci man buñu ne yaay def nangam góoma ko jaar ma fa kawe foo xam ni maa ngi yàkkamti wax wax ji jeex rek ba ma génn ci ni waaye bu lu mën a am bu ma la ci déggaat moo tax ndoogaa googu bi mu ma waatee ni ma <laughs> dégg naa yaa def nangam ak nangam ma ma ma tàmbalee weddi mu ne ma nag maa ngi lay bu dee bu dee lii ma ne dama ah la tax mu tàng mooy dama ne ko ñi fi nekk dañ ma ñeññi moo tax moo tax bu ma sañoon nga bàyyi ma ma tuxu daaray nangam sëñ Saliou laa lay waxtal de sëñ bi daa tuddoon way daa jóg ni ma ñii ma teg ci daara ji daara ji ne maa fa war a nekk waaye dañ maa doy doy goo xam ne day mel ni jëm jëmm mënti séddaliku waaye kon sama jëmmay séddaliku kon nag ku mëni wut ak ñoom doo mën ak man loolu laa jubloo wax ne kon ba nga ni jàpp naa ni dara ji jooju dara ji yooyu yéen yéen gëm naa ni loola ba tey jii loolaa nga ci yéen kon war ma jooju war nañ koy sàmm ci yéen di di gàññi ñu àndal di gindi xale yi ci bëggug sëriñ bi xam ni li ñuy wax ak li ñuy def pour nit ñi jàpp ñu dara loolu du dara ndax usul yéene dañuy nettali ni addis jékkuñu jékk tagg ni rek Abdou Ndiaye nee na sëñ bi nee na déedéet dañuy xool man mi wax ba xam lu ne ci man ba xam jag naa wala déet ki ma ni moo ma wax ba xam am na yeneen jikko yu jaaru yoon yi waaye bu fekkee yow xame nañ la jaar yoon ki nga nettali xame nañ koog jub ak koog maandu ku mel ni sëñ Abib mii ak nangam bu nee nangam sëñ bee ko wax kenn du ko dindi moo tax daal santaat nañ sëriñ bi tey ñaan yi di gën a law te gën a takku ci li ñu sëñ bi bàyyee woon lépp a ngi ci fastamsik bi lasi ooxiya ilay lépp luy njariñ mi ngi ci kër gi bu fekkee ñu ngi jàppoon li ñu sëñ bi yare woon jàpp ci di dem man de xam naa ni maa ngi fàttaliku daam ngay di ma wax ni ma boo xoolee sëñ bi jamono bi mu ñuy joxe yére tergal yam ñu joxoon ca jamono boobee mooy jas neer ci jamono bi ñu toll bu daan ñëw ci daar ñun ñëpp xam nañ ni pomme yim ñu daan jox ak orange yooyu original yi lay doon yoo xam ni ba tey mosuñu koo gis man de woo na ma benn bis ma ñëw mu yabal ma ci booli boo xam ne mis yu am xar la ci def ako paaka man képp mu yabal ma ci miinal nga donga yi xéewal ak teraanga fi yow te wàcce guñ mbàkke buñ tàggoog teraanga feneen gis nga nit pour mu do pour pour mu mën a pour pour nga mën a gindi nit ñi fook nga nur nit yéen ñii moom mën man di ngeen mën a nit ñi waaye ak lu mën a nekk ci yow mii boo soloo ni sagar salla boo jë boo sëñ bi la ñuy xase ci yow moo tax am na ko ne ma day yéen seen solo rafet ak cant la du tiitaru du rëbb àddina ndax ndax ndax ndax ndax siimewum fiu joo min asiri sujjóot bokk du yorofal mu jërmoon bi siimahum ndax ku ne nag boo gisee màndargaam di nga xam ne lëfa nga ci moom moo tax sol gi lu set ak dëkk gi fu baax ak yor oto baax ak sant la de waaye ku jàpp ni dëdd mooy dof dof lu gi loolu loolu du ni nañu nañuy jub te mel nañu war a mel te xam ne xéewal gi suñu xéewal la lépp luñ mën ci di ko di ci dimbalante suñu biir itam nañ ciy bàyyi xel dëgg yàlla yàlla defal nañu mbooloo moo xamante ni ci lépp luñ bëgg mën nañ ko def damaa gis mbooloo mu yaatu moo xam ne dañ ma ni ren dajale nañ quarante et quelques millions laaj leen nu ngeen dajalee ñu ne ma 1000 francs la ñuy sasoo par weer dajale ji lu toll noonu damaa jàpp nag ñun dong yeeg soppe yi war nañoo toll ci taxawal loo xamante ni si danañ noppal sëriñ si noppal suñ bopp noppal suñ rakk yi ba ëllëg ku ñëwaat da nga xam yoonu ngay jaar asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, tabaarakallah tabaarakallah tabaarakallah jërëjëf sëñ Abdou Ndiaye jërëjëf wax ji wax ji waxtaan wi am na solo lool ñu ngi lay <laughs> ndokkeel te di la masawu coono yi ci yoon wi yëpp mm-hmm. waaye xam na liggéey sa liggéey bi sam liggéey day mel ne suñu jotaay suñu jotaay daaw ba bi bi bi mu jàllee mm-hmm. sëñ Muntaxa da cee sëñ Cheikh da cee bëgg sëñ Cheikh am sëñ Saliou mhm. sëñ Muntaxa tamit bëgg ci lool ba am ba am na ay liggéey yu muy def nii yoo xam ne sax ci waxtaan woowee la jóge la jógee lu mel ne cent vingt mètres beeg yooyu yëpp deset na ko leer sëñ Bass Abdou Khadre ba mu ko déggee waxtaan moom tamit mu neex ci moom mu leeral ko sëñ Muntaxa ba liggéey yàkkali dëkk beeg soññebaat bi yëpp ci la jëkkoon ba nañ ñaanal sëñ Muntaxa rek uh-huh. yàlla may ko mm-hmm. sago mm-hmm. tey mottali ay yéeram waaye mm-hmm. mi ngi mi ngi taxaw ca tànke sëñ Saliou jaaroon mi ngi ciy jaar moom tamit ngir ngir ngir dundal dëkk bi ma liggéey bu sëñ bi def waaye lu ñu war a jëmmal la waaw ndax booy xool sëñ bu tedd bi sëñ Touba bi muy ñëw fii ci réew mi maanaam bu réew mi amee tur yu baax dëkk yi am tur yu baax mhm. loolu sëñ Tuubaa moo ko fi indi fekkoon na fi diine lislaam fekkoon na fi ñu jàngal xuraan waaye nag dëkk kër Makka la kër diw kër diw kër diw waaye nag daaru salaam daaru rahman daarul moxti daarul xuddus daaru salaam tur yooyu moom sëñ Tuubaa ko fi indi fekkoon na tamit ay tur yu baax ci réew waaye mhm. Abdul Ahad mhm. Abdul Xaadir Abdul Xaadir li muy bëri bëri Abdul Xaadir Cheikh Abdul Xaadir li muy bëri bëri waaye Abdul Lahat Abdul Xaadir mm. Mouhamadul euh, tamit sëñ Tuubaa tamit noonu la def dëkk bi mm-hmm. booy xool quartier yi mu mujjee lotissé maa ngi koy ra maa ngi koy nettali ko danaa dagale sax liste bi indil la ko mm-hmm. ñu wax mairie bi. Mhm. ñu defar ay tab table indiwaat quartier yooyu. ok ndax quartier yi mujjee lu si tey yëpp tur yu tedd yu tedd la ko. la ko tudde mhm. te ba léegi nii tur yooyee. Mhm. day mel ni fi mu nekk nii dafa mëdd. waaw toll na ci sëñ bi dégg ko. jox ndigal waa mairie bi mhm. ñu def ay tableau quartier yi ni mu tuddoon waaw sëñ bi tudde ko noonu sëñ bi indi woon ay tur mhm. noonu sëñ bi noonu mu def xel koom mhm. ci tur yu rafet quartier yu mujjee natt yëpp tamit noonu la ko def ci ay tur yu rafet xam naa kon daal ñu tëj te sant sëñ Moustapha Diop nag ñu ngi lay sant bu baax ndax jataay bi daaw yaa ko waraloon yaa ko woote woon soññe ji ren tamit naka noonu mhm. yaa ko woote waat soññ ci mhm. ànd ko suñu magi taalibe yu baax yi mhm. di suñu ay jëwriñ di suñu ay sëriñ di suñu ay lépp li nga wax tamit ne buñ bala ñuy dem nañ toog ba xéewlu door a dem loolu kon maa jot li naa ko ci jotaay bi sëñ Moustapha nee na am na ay xéewal yu mu waajalan ngir bés bi nañ toog ba xéewlu ko door a dem newoon na ma tamit xéewal yooyu nag ñi nga xamante ni ñoo ko fàggu naa leen sant nee na ñetti nit ñoo ko fàggu kenn ki mooy Samuel Ahmed Sarr kenn ku ne Samuel amee mhm. mhm. mhm. xam na lim doon ci sëñ Saliou xam na lim doon ci donge yi kenn ki di Moustapha Kébé moom Alaaji Babacar Kébé du njuga kenn xam na lim doon ci sëñ Saliou xam na lim doon ci donge yi kenn ki tamit di Moustapha Seck moom Alaaji Moustapha Seck ndax ñooñu ma lim ñëpp kenn ku ne am na doom joo xam ne sëñ Saliou nga ko tudde kenn ku ne tamit am nga wëllëre woo am ak sëriñ bi jàpp ko kon nee boog mi ngi leen di sant di sant tamit kilifa yi fi teew yëpp